wa man ihtada bi hadihi ila yawmi ddin mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal sunu borom mu yàggal ko fi te ko di ci teg Serigne Sidi Mbakke xalifa Cheikh Abdul Ahad moom di ko ñaanal wér ak gudd fan di am mbégte bu baax a baax ci teew ci jataay bi ngir fas yéene mu bokk ci jataay yi nga xam ne dañ koy def ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad commission culturelle bi nga xam ne ñoom la dénk liggéey bi aju ci waajtaayu màggalu Cheikh Abdoul Ahad at mu jot ñu di ko def ngir di waajal ay thème ay waxtaan ay témoignages ak di gëstu ak a yaatal ak a jàngat ay discours ak képp koo xam ne daal am na ay xam-xam wala ay njariñ yoo xam ne mënees na koo jariñoo ci ci dunduk Cheikh Abdoul Ahad muy doon luy jariñ jullit yi ñu nekk ci niñ ko defee rek ci programme bi tey jii mu bokk ci programme yi ci ëpp solo muy table ronde boo xam ne dañ koy defe fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad ànd ko ak ay kilifa ay boroomi xam-xam yoo xam ne danañu jël ab tomb tom bi nga xam ne mooy mawdoo bi bi nga xam ne moom lañ tànn ren te di ci dellu saa su nekk suñuy waxtaan muy atasaamu muy assalaamu wa tasaamu fi taxaalimi cheikh alxadim duruusun min xayaati cheikh abdul ahad mbakke muy jàmm ak xajoo niñ koy màndargaale ci njàngaleem sëriñ Touba waaye loolu benn fànn la ci ñu jëlaat beneen fànn bi muy ay bind yoo xam ne danañ ko tibbe tamit ci thème boobu noonu mu tukkee ci dunduk Cheikh Abdoul Ahad ñu seddale ko ñaari ñaari pàcc bi ci njëkk muy asalaam wa asalaam wa tasaamu fi taxalimi Cheikh al Xadim docteur Serigne Abdoul Ahad moo koy def Euh, dana waxtaan ci lu toll ci ñeent fukki minit ak juróom su noppee ci suñu wetu ndeyjoor tamit Serigne Mbacke Abdourahman mooy def beneen tomb bi muy durusun min xayaati Cheikh Abdoul Ahad maanaam ay bind yoo xam ne dañ koy jëlee ci dunduk Cheikh Abdoul Ahad te mu tukkee ci euh, asalaam wa wa tasaamo kon loolu lañ fas yéenee jëmmal ànd ko ak euh, presse bi nga xam ne ñoom la commission bi di àndal muy presse euh, locale bi ak internet bi ak euh, rajo yi ak télévision yi su ko defee nag ci biir jataay bi kilifa jataay bi am na mu ngi fi teew di sëriñ xaadim Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad di sëriñ xaadim Nuuru xam naa ne mooy kilifa ak jataay bi fi mu nekk nii ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu tamit njaboot gi fi teew yépp di njabootuk sëriñ Muxtaar Bintaloo ak bokk yi fi teew yépp góor ak jigéen kon dañuy njëkkante ak waxtu wi jox sëriñ Maam Cheikh Jaxate moo ubbi ci ay ay ayatul alquran ayatul quraniya bu ko defee ñu barkeeloo ko ñu doog a jublu ci waxtaan wi kon Serigne Maam Cheikh bisimilah.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 وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهنا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدق jërëjëf sëriñ maam Cheikh Diakhaté euh, am na solo lool ñu lay ñaanal sunu borom defal tawfeex su ko defee kon bokk yi ñuy seetaan te dañuy déglu dañuy daal di fas yéene tàmbali waxtaan wi rek taanal ci assalaam wa tasaamu fi taxaalimi cheikh cheikhul qadim kon docteur Abdoul Ahad bismillah bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin al amin wa ala alihi wa sahabatihi al ghurri al mayamin wa man iqtafa minhajahum ila yawmi ddin mbokk yi tedd yi noo ngi leen di nuyu ci kàddug asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di ziyaare bu baax a baax ak di sant mbooleem ñi fi teew ak ñiy topp jataay bi fu ñu mën a nekk ci àddina waaye di ci jiital kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo nuy wettali ci jataay bi wuutu fi seeni kilifa ñu mën caa tudd sëñ Xaadimu Nuur di ko ziyaara bu baax di yóbbante ci kilifa gu mag gi sëñ Sidi Mokhtar ay nuyoo ak i ñuy am mbëgte nag ci bokk ci jataay bii ci pàkk bu sell bii e, war fee waxtaane benn tomb ci xam-xam séq ko it ak suñu magum daara sëñ Bakki Abdourahman bu ñu neexoon ñu ne suñ sëriñu daara ndax euh, man jànge naa ci moom ay araf ay téere fii ci daarul maarif ci biir jumaay Tuubaa ji kon noo koy nuyu di ko ziar bu baax euh, ñu war fee waxtaane benn tomb bu am solo muy jàmm ak xajoo ni ko seexul xadim jàngale ak ni ko seex Abdul Ahad Mbàkke dunde wala mu jëmmale ko ci ak dundam ak ci dundub murid yi muy tomb boo xam ne ñëw na ci jamonoom ndax tolluwaayu réew mi laaj na ko réew maa ngi toll ci ay guddi yoo xam ne waxtaane fi tomb bu mel nii mën naa amal njariñ tamit bu baax a baax kon tomb la bu yitteel réew mi bu la neex nga ne yitteel àddina bépp sax ndax jàmm àddina bépp maase di ko xante woo di ko wër waaye jàmm nag buñ koy waxtaan ci buntu diine rawatina diine lislaam day nekk lu am solo lool ndax xam ngeen diine rawatina lislaam fi mu toll ci xolu jullit ñi rawatina julliti Sénégal ah, buñ ko jaaree ci buntu njàngalem Seexul Xadiim day ëppati solo ndax moom tam ku ne xam ne wàccuwaayam ci xolu euh, taalibe yi ak xolu jullit ñi mu mel ne kon bu ñu gaaralee benn model boo xam ne jàmm mooy nekk tomb bu mag bi waaye ñu nite ko dunduk sa Abdul Ahad Mbàkke kon day mel ne image bi mat na sëkk ndax moom da daan tudde boppam ubaydu rabbihi wa ibnu yi loolu li muy firi moo jaamu suñu borom la waaye doomi sëriñam kon borom ëtt bi euh, li ñuy tuddee ak taalibe ak dégg ndigal ci moom lay yem kon luñ jàngale ci njàngalem sëñ Touba rek jàpp nañ ne buñ ko nitee ci dund si Abdou Lahad dana gën a leer tomb bi nag buñ ko seetantalee bu baax xool solo sim am ci suñu dund moo xam ci diine wala ci jamono daf ñuy njëkk a fàttali lu benn boroom xam-xam waxoon ne diiney lislaam dañ koo samp ci ñaari keno kene bu njëkk bi mooy kalimatu tawxiid mooy baatub seede lépp lu aju ci diine beneen bi nag mooy tawxiidul kalimate mooy bennale kàddug jullit ñi ñaar yooyu day mel ne dina wone solo si waxtaane jàmm am ci diine te loolu suñu boroom digal ñu ko ci ay aayaat yu baree bari waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu benn la ca digal jullit ñi ñu def ñu benn la seen kàddu tere leen ñu taqali ko di xiiroo di ŋaayoo di leen leeral sax li mën a juddoo ci xiiroo bi ak ŋaayoo bi ci ay lor yuy dellu ci ñoom wala tanaazau fa tafchalu wa tadhaba rixukum li muy firi mooy ñàkk a bennale kàddu gi day jur ak lot day jur ak euh, yonjax boo xam ne day tax jullit ñi duñ mën a mot matal dara ci li leen war ci kaw suuf moo xam ci diine la wala ci àdduna la loolu mooy feeñal xéewalug jàmm ni mu amee solo ci dundug askan wi nga xam ne kenn mënu koo ñàkk waaye nag dafa laaj di ko waxtaane di ko suuxat ci yëg-yëg yi ak ci xalaat yi ak ci comportement yi loolu nag fa muy tàmbalee mooy kon di ci yeete bu baax a baax nga xam ne di wane na it Euh, reeni jàmm weesuwul dëgg ak maandu te loolu foog naa ne màndargale ci kër gi ñuy waxtaane euh, waxtaane jàmm yit ci njàngaleem sëriñ Touba radiyallahu anhu mooy waxtaane lislaam rek ndax sëriñ bi ku ne xam ne na moo kiy yeesal lislaam mu jaddidul islaam di kuutaayu yonente bi alayhi salaatu wasalaam dib liggéey katam diinun siwaa islaamihi la yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nu jaddidu xam ngeen ne lislaam it diine la joo xam ne daa bokk ci ay finalité ay bëgg-bëggam jàmm jàmm ci àdduna jàmm ci àllaaxira mën nañoo wax ne mbooleem àttey lislaam yi benn jubluwaay la am mooy indil jàmm jullit bi ci àddina ak ci àllaaxira loolu yaakaar naa du jar guddal sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu li ko gënoon a yitteel ci taalibeem yii ko suñ borom booleel mooy ñu am jàmm ci àddina am ko ci àllaaxira baatu addaaree ni bare na ci am bindam majmau nuurayni fi fawaidi daarayni matlabul ni kon bàyyi xel fii ak fële lu am solo la ci dunduk Seexul Xadim te loolu moo tax ñuy jàngatoom bi ci am njàngaleem kon tomb yi xëy na du dinañ ko tënk waaye liñ war a waxtaanee ci ponk yi rekk la tënku bu ñu jàngatee dunduk Seexul Xadiim dañu gis ne dafa joxoon gëdd lool yërmande ak jàmm ci wooteem bii loolu mooy ponk bu njëkk bi bi ci des mooy da daan woote ci bonnoog jullit ñi ak seenu mbokkoo ak ak cofeel gu am ci seen diggante bi ci des mooy da daan moytuloo jullit ñi li ñuy tuddee farfarloo di leen moytuloo tooñ di leen digal ñuy baale buñ leen tooñ loolu it ab tomb la ci waxtaan wi daan leen yar ci ñuy wattu sàmm seeni cër ak seeni yëg-yëg sàmmonte ak ay teggin loolu it beneen tomb la daan jàngale diisoo ak laayante biir loolu it beneen tomb la ci waxtaan wi bu ci mujj nag mooy li ñu mu daara laamisoo ak nit yi àddina yi nga xam ne dangeen ngeen séq réew mi loolu it beneen tomb la boo xam ne mënees na cee taxaw ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa kon buñ demee ci tomb bu njëkk bi mooy jox gi Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu joxoon gëdd yërmande ak jàmm ci wooteem bi ba mu xaw a mel ne sax yërmande ak jàmm mooy xàmmikaay wooteem Sëriñ Tuubaa bi radiyallaahu anhu xam ngeen ne sëriñ bi bi muy wootee wooteem bi mu ngi ko woote ci jamono joo xam ne jamono ju nax a la gu bari ay xiiroo ki ŋaayoo ci ay front ay jabahaar yu bari yoo xam ne foo fu ne dara nga fay tàkk booba tubaab yi ñu ngi ñëw samp fii ci senegal not réew mi buur yi àddina yi ñu ngi fi woon not sénégalais yi ah, ñi fi nekkoon ci ay tariqa it kenn ku nekk mi ngi xëcc jëmale ci booram nit ñi nga xam ne ñooy dund ci société bi waaso wu ne jàpp ne yaa gën sa morom kon ay tàkk-tàkk la fi sëriñ bi fekk sëñ Touba radiyallahu anhu al sëñ Basiru nee na mas na jóg dem fekk El Hadji Malick si ci dëkkam bu ñuy wax Njarnde ca Kajoor am fa ay fan gane ko keroog ba muy ñibbi nee nañ El Hadji dafa jóg war fasam gunge sëriñ bi diggante bu gudd gudd boo xam ne lañ ca mën a jàngate rek mooy ñaar ñu soppante ñu ngi woon noonu sëñ Basiru nee na ñoom ñaar de seeni bindante ay lettre musta dagg mukk ba keroog alxaaji Malick si di ko jiitu euh, di faatu mas fuñ masaana toll ñu ngi weccoo ay addiya sëñ Bachiru nee na fàttaliku naa ci benn téere boo xam ne alxaaji Malick si moo ko jox Sëriñ Tuubaa boole ci baydu si yooyu hadiyatun mujibuha tilaabu mahabbatin ya ayyuha alxubaabu ba mu jeex ba sëriñ bi di ko tontu naan jazaakumu xayral jazal wahaabu wa fi safal widaadi la tartaabu fa kayfa la wal Mustafa al mujaabu imaamuna wal xitla la nahaabu kon ab diggante ngoog bu rafet boo xam ne sëñ Touba bay na ca lam ca war a bay ci suuxat jàmm diggante kilifay diine alhaaji Abdullahi Ñas bu kaw Kawlax sëriñ bi mas na koo jox addiye benn téere bu ñu tuddee tafsirul jalaalay ni alhaaji Abdullahi Ñas ba mu jotee tafsir ba sant ca lool waaye digal doomam ji ñuy wax Cheikh Mouhamadul Khalifa Niass ne ko bindal ma ay aqasida nga santal ma ci sëriñ bi muy xaa'iya bu neex boo xam ne ma nga tàmbalee ci azka salaamin ka taami shahdi birraahi yanuubu anna wisaal arraahi birraahi azka salaamin ka raya almiski nafxatuhu muattarin bi nawaahi almiski fawaahi huwa aljalalaani tafsiran limansibikum misbaaxu ilmin ka dawi subxi lammaahi kon Cheikh Mouhamed Khalifa Niass ci turu waajuram la doon sante sëriñ bi ci addiya ju am solo jooju nga xam ne moom la ko jox. jàpp naa ne buñ demee ci sëriñ xaadir yi moom ñi ci sëriñ bi amal relation dafa bari lool bokk na ca Cheikh Sidiye Baba mi doon tagg sëriñ bi naan ko a Cheikh Ahmadu nicmatun awlaaha haadil xalaaiqa kullaha mawlaaha kooku di kenn Cheikh Saadu Abihi mi ko doon dokkeel bi mu jógee ci eh, tukkib géej gi yàgg nañ cee jaar kon loolu. day wane ne benn noog jullit ñi ak seenu mbokk mbokkoo ak cofeel gi ñuy suuxat seen diggante Sëriñ Tuubaa ak ñi mu ko seqaloon ci jamono ñu ngi ci doon dox ngir rek xam ne ñoom seen taxawaay day rogalaat dem ci njaboot gi noonu ko sëriñ bi daan dunde nag noonu la ko ay taalibeem doon dunde ñi mu yar ñoom itam ubbeeku ak bëgg jàmm ak mën a doxal ay relation ci ñoom la fekk baax El Hadji Mbàkke Buso ku teela a yëngutu ci waar woowu la ba El Hadj si jógee Makka ànd ak beneen naar bu tudd Ahmed Bachir Ibn Moubarak di taaliba Cheikh Saadu Abihi ñoom ñaar ñoo ajandoo ñibbiseendoo 1889 la loola yàgg na boobal El Hadj bu sa jël xalimaam tatagal leen ndokkeel leen ci seen aj googu marhaban bi cheikhayni bil qaadimayni marhaban bil qarmayni bi taa'ibayni marhaban marhaban wa ahlan wa sahla bi jamii al xujjaaji bi sayidayni tatagal leen ndokkal leen ñoom ñaar lool nag am na lu muy firndeel ci njàngum sëñ Tuuba ci njàngaleem waaye yamul foofu El Hadj bu sa ginnaaw lool ay at yu bëree bëri ndax at moom ma jàpp naa ne ab taawam sëñ Modou Bousso ci la waaye ginnaaw ba sëñ Modou Bousso demee ba amaat ay at yu bëree bëri El Hadj Mbacke Bousso yónni na ko ci mbokkam El Hadj si boole kooku jarbaatam bu ñoo sew Mouhamad Lamine Niang ñu dem ngir seet ñu seetal ko El malik ba dem dañoo yóbbaale ak xasida sëñ Maodo Boussa ko bind uhdi bahiya salaamin qad tusaayiruhu tahiyatun mislu rawdi zahri mislu rawdin zaanahu zaharu loolu la sëñ Maodo Boussa nuyoo El Hadj Malick si muy xasida gu xaw a takku waaye El Hadj si tontu ko bëgg lool ci seen dikk ga ak seen tànk ñoom ñaar atat qurata aynin wa najma saadatin li tajdida aqdin kaana xayra uquudi ñaari doom yu sedd xol ñu ñuy sago ñëwal nañ ma tey ngir beesal kóllëre goo xam ne mooy ngeen ji kóllëre te mooy gi dox sama diggante seen waajur bi alxaaji Malick si ak Cheikh Abdoulahi Niass faatoo ci menn atit sëñ bu Buso def na ca lu rafet ndax ñoom ñaar la boole genn xasida goo xam ne daf leen caaya martial yaa sulmatan fi diinina al islaami min qalci qarnay haamati haamatul islaami السيدين العالمين الناسكين المسلكين لهضرة العلام شمس وشمس عام شمس غابتا فبكى الورى لتكاثف الإظلام ومالكا للسنة الغراء والقربى وللضعفاء والأيتام ما ليس غيل مثل عبد الله في يوم الحروب الباسل المقدام kon ci ñoom ñaan ñëpp la jooy waaye mu jooy alxaaj Malick si ne fu ñu jëleeti koo xam ne mooy taxaw sunna si di taxaw mbokk gi di taxaw ci néew ji doole ak jërim yi Abdullahi Ñas nag boo ko bëggee misaal danga naan mooy gaynde ak manding ci waar yëpp kon loolu la sëñ taxawee ci loolu yi ah xam naa fi ñu koy tëjee lu kiimaane la ndax maam Cheikh Anta xam ngeen ginnaaw soo bi tubaab bi sonal nañ ko ba tëj ko def ko ni ñu defoon sëñ bi yóbbu ko fu sori tëj ko fa ay at yu bare bare waaye ci biir ma la maam Cheikh yëg na ne sëñ Babacar si doomi Alxaaji Maalik si doon na ci dox ay tànk ba mu génnee mu digal sëñ Moussa Ka mu bind ak xasiida ngir sant ci sëñ Babacar si moomu loolu xëy na siwut waaye xasiida gaa ngi nii tàmmooy waxal misbari fawqa alqaratisi yaskubu miyaahan ka sakbin min sahaabin wa yaskub wa yaktubu wa am taltamul amwaaju min lujji fikrati kama yusbidul bahrul muhiitu wa yadribu li madhi abi bakrin xalifati malikin daratu nawaahi sharquha suma maghribu loolu sëñ Moussa Ka moo ko def ci turu maam Cheikh Anta waaye def ko way ci sëñ Babacar Si loolu tegte loolu rëy rëy rëy ci ubbiku gi nga xam ne euh, taalibe sëñ Tuubaa dañ koo ubbeeku jëmee ko ci seen mbokki jullit loolu kon mooy ponk ñaareel ponk ñetteel bi mooy sëriñ bi daf daan moytuloo ay taalibeem li ñuy tuddee far far baax na waaye far moo aay far farloo la leen daan tey la leen daan tere te gis ngeen ne far farloo foo mooy bunt bi gën a gaaw ci xañe jàmm nag jàpp naa ne fii nu toll nii guddi yi nu toll li nu li nuy tiita ka fér-fér yi buñ ci génnewoon woon farfarlu dara du fa des ci wàll yëpp dinañ farfarloo ci politique di farfarloo ci diine ak ci tariqa ba ci kër diine genn sax danañ danañ ko defaat yeneen kër kenn ku nekk fu sa kër di farfarloo di wooteel sa kilifa ngir dal dal ci ci kaw ñeneen yi dina amee ci diggante mazahib fiqh kon farfarloo daal lu sëriñ bi bañoon la nag xam jàngale na ko bu baax a baax euh, fi nga fi nga koy njëkk a xeeñtaw mooy sëñ bi euh, nit la fonkoon balaa moo maanaam fonk na jullit fonkub taalibeem waaye doomu aadama la fonkoon ngir sàmmonteeg àqi suñ borom mi ko bind qalbiya yanwil xayra lil xalaayiqi li wa ci baaqin kaana lii bilaayiqi loolu da ko daan wax sama xol yéena ne bëggal na lu baax mbooleem bindee fi suñ borom yi ka cee jullit ak ka ci jullit la yem nag foofu di digal ay taalibeem naan leen kuunu muhibbiina alxuyura li jamii xalq ilaahina almuqaddimi albadi bëggal leen aw yiw mbooleem bindee fi suñ borom yi am comme ci doon bind ab lettre ne ko maa ngi lay dénk nga yërëm mbooleem mbindeef yi donte ay moykat ñu ngi ci seen biir ndax nee na yërëm kii moy moo gën di ko yedd wala di ko ñaan yàlla da koy ñaanal yàlla yàlla gindi ko waaye di ko di ko ñaan yàlla moom ëpp naa def kon loolu di benn buñ dikkee ci waaso yi regle na ko bu yàgg waa waalam bi an tafawutul wara bil ilmi wa diin yakunu fasbira dafa reprendre aaya alquran ba inna akramakum indallahi atqaakum amul nasab amul parce que daf ko topp laa bintisaabihi liman qad ictala min jihati l ansaabi ummin wa abin fa fihima tahid ma taadumi kon mbiru waaso ci wàllu société ni ñu tërale seenu gën a gënante ci seen biir loolu sëñ bi daaw ci bàyyi xel sëñ bi li mu daan bàyyi xel mooy xam-xam ak diine ak ragal yàlla bañ na ko ba ci njaareem da daan xeex lu mel noonu ndax euh, wolof boo amee métier rek mu classé la wolof boo amee métier rek mu la def la waaso ci asaasu waaso boobu ci lay ci lay tabaxe yu bare bari ci dund social gi loolu nag la sëñ bi doon xeex ba ci biir këram ñoo xam ne ay doomi soxna lañu woon ci niñ koy waxe da leen daan def loo liggéeyu ñeneen ñi nga xam ne ay métier lañ leen xame woon démb mu leen di def loo liggéey doomu soxna ngir rek xeex euh, liggéey boobu ci wàllu mazahib bi mooy ngir yi lum lum lum lum maanaam farfarloo ci wàllu ngir lum bañoon la donte organiser na ay taalibeem ba tànn leen menn mazhab ba tànn leen menn naan leen aleykum bil malikiya fa innaha mutahharatun munawwara te loolu am solo la waaye tëjuwut nag ci biir ngir mi moom ci boppam da daan wax taalibe ne man li ma leen digal mooy ngeen tënku ci ngërum imaam maalik man ci sama bopp bu ngeen ma gisee muy def lu wuuteeg ngërum imam malik bu leen ma ci topp ndax man damaa am sama jaagaleeg bopp waaye jëfandikoo gi muy jëfandikoo yeneen ngir rek am na lu muy tegtale ci ubbiku waaw ba noppi nag teg ca daan tagg eh, eh, sëriñ yi ngir fiq yi ku mel ne imam malik ak imam abu hanifa imaam Shafii imaam Ahmad ibn Hanbal a'immati fi lfiqhi Malikul Ali wa Shafii wal Hanafi wal Hanbali ñooñu noonu la leen daan ndax xamoon na rek boo gisee mu tënk ay taalibeem ci menn ngir xam ne bokk menn ngir day tax nit ñi bokk ay yëg-yëg bokk giseen ci yu baree bare te loolu day andi ak dal andi jàmm ci am réew réew yi am autorité ci wàllu diine yépp dañoo tànnal seen bopp am ngir boo demee Maroc. ñoom dañoo tànn mazhab maliki muy seen ngir rasmiyan arab saudi boo fa demee mazhab hanbali la ñu tànn loolu ngir benn la xeet wee tax ñu koy ñu koy tànn ndax bu dul loolu rek wuute ci wàllu ngir mën nañoo joxe meen misaal rek xool leen maanaam ñi daan xabdu bu njëkk xabdu daana toj am réew ñëw rek di julli daal di boot say loxo daana tax ña dul def daanaka yàgg maanaam sax ña dul julli ñoo leen ñoo leen gënal yow miy julli di xabdu te loolu xam nga ne wutale ci ay am ngir rek xool leen yu mel noonu bu bari woon ci am réew xool leen bu bari ci am réew kenn ku nekk andi dara su ko defee fu ne dara di fa tàkk loolu musiba la ci am réew moo tax euh, yàlla defal Sénégal tawféex ju rëy nag ba sëriñ bi ni mu tënke ay njabootam ci ngirum imaam Malik tënk leen ci aqidatul ashariya tënk leen ci tasawuf junay di daanaka mbooleem magi Sénégal yi foofu lañu tënk seen mbir fi aqdil ashari wa fiqhi maliki wa fi tariqatil junaydi saliki bu dee ci wàllu yo farfarloo ci wàllu tariqa nag yaakaar naa ne masaalikul jinaan jàngal nañu ko moo nu tënkal lépp fa kullu wirdin yuridul murida li hadratillahi walan yaxiida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad tijaani id kulluhum aw li sawahuma min al aqtaabi id kulluhum qataan ala sawaabi foofu la wax ji wax ji moom tëju na foofu aw werdu daana tàqale ay nit waaye sëñ bi mu dikkee da koo ubbi ci werdu boppam sax feeñ na ci ni mu ko daan joxe ak ni mu ko daan jëfandikoo da doola ci naan fala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa allah képp koy wax laa ilaha illa allah bu leen ko ab murit sañu koo noonu walaazimu xubba jamii al anbiya wal awliya wa man yuti rabbiya na ngeen taqoog sopp mboolem anbiya yi ak wali yi ak képp kuy topp suñ borom fu mën a bokk nag masaayixi sayiduna al jilaani wa saada lii maahu tijaani ñoo ñooy ay sëriñ ci wàllu tasawuf kon loolu mel na ne sëñ bi tëj na fi ba ci sax ku amul wërd ba sax ku amul wërd sëriñ bi bi mu bàyyee wërdi tasawuf yi jokk ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam lu mu wax kitaabuhu al aziz saara wirda lii wa nafa an il tarda an mel ne kon même ki amul wërd sax am na wàccuwaay ci wooteeb sëriñ Touba bi radiyallahu anhu ndax bu bu jëfewulee tey tey jëfe ji jàng alxuraan mel na ne tënku na ci ndigal Serigne Touba kon loolu ubbeeku googu mooy indi jàmm ci am réew kon loolu da koo jàngale waaye nag daf koo jëfe da koo jëfe ndax moom ku respecté woon kilifay diine yi la daan yar taalibe yi ñuy respecté leen benn taalibe mas na ko laaj ne ko ndax suñu mbokk yooyu maanaam tijaan yi ndax suñu mbokk yooyu sañes na leen a wax dara sëñ bi ne ko mukk ndax du ngeen ay yahud duñ ay yahud du ngeen nasaraan duñ ay yahud du ngeen di nasaraan mu ngi junj ay alquran wa qalat yahud laysat nasara ala shay wa qalat nasara laysat yahud ala shay wa hum kooku ba mu ne ko ndax sañ lañ leen wax dara mu ne mukk ndax du ñuy yahud du ngeen di nasaraan wax ja yem foofa loolu it ni ko daan dunde noonu la ko magi taalibe daan magi magi Sénégal yi daan dunde alxaaji Abdoulahi Cissé al jaamali benn taalibe mas naa ñëw toog ci jataayam laaj ko ne ko waaw ndax taalibe Tiijaan sañ naa julli ci ginnaaw ab murit alxaaji Abdoulahi Cissé ne waaw ndax ilimaan jooju ngay wax daa manqué benn sart ci sart imaam yi mu ne ko déedéet waaye nag du tijaan waaye du tijaan mu ne ko ah melokaani imaam ak sartam de boroom xam-xam yi noppi nañ ci rëdd nañ ko dara mënatu cee jeexalati ginnaaw ginnaaw loolu waa ji rus lool alhaaji malik si miñ doon tudd sànq ay njabootam yu nekk gaaye ñëw nañ ca moom sëñ ba si roy nettali lii ñëw ne ko ñoom daal dafa am benn waaye bu ñuy wax Moxtaar Saw dafa bëgg a jiite suñ jumaa te du tijaan te du tijaan El Hadj si bind na leen ne leen bu dee moxtar Saw mi ma xamal sama bopp de man man bu bu julli woon sama kanam man ma topp ci ginnaaw ñu weddam ñoom tim benn waaye mas naa ñëw ci El Hadj Malick si ba tey ne ko he sëriñu murid yi de nee na nee la te sax wërdam wi de mi ngi ko jëlee ci suñu borom mu jaare ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam ndax li mu wax am na alaaji Malik mer ne ko waaw yow ndax maa bëgg a wax loolu amut mukk laa ndax dangaa jàpp ne ngëneelu yàlla daa ba mu mën a jox ab wàlliyu ci ay xejjam jagle gu ko neex daa jàmb waaja du moyu ko waaji rus lool nee nañ ci jataay ba alaaji Ablaye Cissé mi ma tudd sànq it nit mas na wax lu mel noonu naan ko yow de ne ko ñoo daal cey murid yi ñoom daal kii man lañ ndax daal nee nañ seen sëriñ moom aw wérdam mi ngi ko jëlee ci yonente bi aleyhi salaam te kenn doxul diggam ak yonente bi Abdoulaye ko waaw yaa ngi koy diingat te diingatoo Cheikh Ahmed Tidiane lu tax Cheikh Tidiane kat ab sëriñ la woon boo xam ne eh, yàlla da koo bindaloon ak nangu ci xoli nit ñi rek ngir ak mbaaxam ak diineem aki i karaamaam waaye nag Cheikh Tidiane du yonent boo xam ne boo ko gëmul dara war la ci mais teewul nu ñu gëm ko waaw sëriñu muridi nag boroom xam-xam lu ku wóor la ku sàmm la ku mën a topp sunna la ku xar baax ci jaamu yàlla waaw moom bu dikkee nett lañu loo xam ne moom moo ko yëgal boppam te suñu borom doxal ci loxoom ay karaamaat ak xar baax nit ñi di ko nett li kenn amu ci sikk sàkka kooku kenn sañu ko dingat waaye it rus kon loolu ba tey ci benn jullit ñi noonu la ko mag ñi daan dunde waaye sëriñ bi it daan tere tooñ waaye ku ñu tooñ mu lay digal ngay baale xam ngeen ne tooñ ak saw tooñ moom yaakaar na mën naa sànq jàmm mën naa indi xiiroo ak ŋaayoo li sëriñ bi daan wax naan kuy tooñ du mucc ku fay doo noppalu jàpp naa ne loolu lu mat a bàyyi xel la sëñ bi nag loolu daf ko daan digle di moytu tooñ di te kuñ tooñ nga jégg la ndax loolu mooy indi jàmm am na ko muy digal naan kon na jullit ñu góor ñi ak ñu jigéen ñi mucc ci sa làmmiñ niñ mucc ci sa lori loxo daana digle mu ngi ci naxaju qadaa'il xaaj wasbir ala sabbi wala tujib ahad wa kun kama qaala al adib wala qad idi tasaabubu ma takaasub min aqbahi alxisaali ka tawaru loolu da ko daan digal maanaam ku la ku la ku la saaga bul fayu wa laqad amurru ala laimi yasubbuni wa aifu suma aqul laa yaani ni ndax nee na saagaanteeg weddente loolu dafa bokk ci jikko yi gën a bon doon na wax taalibeem naan maa ngi leen di moytu loo fayu tooñ ngir man kat dañ maa tooñ ma muñ ñu fay ma fayul ma ñu fay ma fayul ma nee na ku fayu nag deesu la fay deesu la fayul parce que boo boo fay boo maanaam boo muñee yàlla dina la fay yoolu muñ te moom moo lay fayul lañ la teg kon loolu la sëñ bi daan digle ci pratique moom sëñ bi ci boppam jàpp naa ne joxe na leçon boo xam ne àddina bépp la ko jox ndax ñi ko sànq ñi ko jéemoon a sànq sax laay wax ñi ko jéemoon a sànq soreel ko ak njabootam juróom-ñaari at ak dara mu ñëw bind ci xasidaam ne afawtu an il aadaai turan li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan las adfau loolu yaakaar naa ne leçon bu am solo ndax sëñ bi initiative bii bu ko jël toon jàpp nañ suñ digganteeg tubaab yi ak seeni ñoñ maanaam xiiroo ak ŋaayoo mën na ci am boo xam ne jàmmi àddina bi mën na caa jaxasoo muy seedaloo yàlla ne ko washhad lii yaa rabbi parce que lii du ma ko wax nit ñi rek yow laa ko seedaloo yàlla bi anni afawtu anni nasaara tubaab yi ma génne woon ge ñoom ñëpp baal naa leen ak ku dul ñoom sax baal naa leen yamu ca waaye bis bi nga xam ne mooy symboliser fitna ci moom ak coono muy bis bi ñu ko génnee woon di ko jéem a sànk bis boobee bu ne woon bu dikkatee nañ koy fàttali ko rek nii te te nañ ci sant yaakaar naa ne li li xew ci manifestation yi nga xam dañuy ciblé ay moomeelu France ak yooyu kon ci la ñuy dëkk noonu ci la ñuy dëkk waaye mu ne nañ koy fàttaliku waaye di ci sant yàlla di ci sant yàlla sëñ bi kenn xamul lu mu doon maanaam di ci sant yàlla mais bu ne woon nañ koy fàttaliku doom kon li ñuy wax ay caaroy gaar ak ay caaroy 44 ak yu demee noonu kon loolu rek bu ñu ko waxoon jàmm man duutu am ci senegal du am ci àddina bi ndax mu rëy di boobaa jàpp naa ne maanaam li ñuy liggéeyee sëñ bi mooy di dal ci alali tubaab bi te loolu day andi fitna waaye mu kar leen ne nañ ko ci sant la yàlla loolu buntu jàmm la boo xam ne wax dëgg yàlla fii la jàmm man a mën a yem te bind na ko ay yoon yoon bind na ne képp ku ma mës tooñ la du ñaan yàlla mukk ku maa ngi jégalul bépp jullit bu aju ci man ak bu ajul ci man kuy murit te ku dul murit ñëpp maa ngi leen di jégalul yàlla te li ma bëggal samay bi laa bëggal ñëpp bépp jullit lii kon fi la jàmm mën a yem ba naan wa kullu man seetame ni aw laama fa hab lahu tawbata wa sislaama ba ci sax ku ko ŋàññi wala nga jubale kàddu gu tegginuwut maanaam non seulement jéggal na la waaye mi ngi ñaan yàlla jéggal la yow ba noppi def ci yow ak nooy ba nga nangu dëgg du la sawaraw werante alawtikoo ba def loola lu neexul soxol xol ko saafaraa ndoxum noppi ak fénati lii ay abiyatam la bu la jaani xuloo màttee na ko lugge jàmm ak salaam daa déet bu la jiiti jiiti bu la jiiti xuloo fettee la wax na ko moccee jàmm ak salaam bu la jaa jaani noonoo màttee nanga ko lugge laay biir ak tabe sàngaras mer ak soxor bu la màndiloo na nga naan ndoxum muñ ak dëddu àddina lii ay ndénkaane sëñ Tuubaa la loolu nag mooy ak njub mooy al adabul mardi te xam ngeen ak njub rek moo mën a andi am réew bu ko yàlla natoo ay ndaw yu jubut ndaw yu amutum xëy mel na ne ña nga fasul ay bombe retardement jub bi kon lu am solo la parce que jub mooy indi jàmm. am na ko ma sa ñëw ci sëñ bi ci nekk nettali ne ko man de sama doom dafa am soxna ma bëgg nga ñaanal leen yàlla jubóole leen sëñ bi ne ko téemalee ne ñaanal yàlla jubal leen njëkk mu leen di jubale ndax xanaa xamoo ne yàq gu am ci àddina yàq goo gis ci àddina ñaar ñu juboo te jubuñu moo ko waral ñaar ñu juboo te jubuñu moo ko waral. loolu nag am jàngale gi ci kon njub gi am na solo am na ko mas dikk ci moom it nu yoog moom di jàmmanteeg moom ne ko naan sëñ bi mbaa jàmm nga am sëñ bi naan sëñ jàmm rek sëñ bi ne ko luy jàmm waa ji noppi mu ne ko jàmm de mooy jaamu yàlla barab buñ ko dul defee bu fa jàmm njëkkee du fa mujj jàmm mooy jaamu yàlla am na borom xam-xam bu mag nag bu mas a xamle lan mooy jaamu yàlla mu ne jaamu yàlla tur la wu ëmb lépp lu neex yàlla lépp lu yàlla gërëm ci wax ci jëf ju nëbb ak ju feeñ kon nag loolu mooy ak njub ah ku def lu yàlla sopput nag gërëmu ko defub safaan loola ca dal yaa ko teg sa bopp moo tax ba ci tere sàngara tere carte sax yàlla bi mu koy def ba mu koy tabrir ba mu koy taali nee na innama yuridu an yuqia baynakum al adawata wal bagdaa fi al xamri wal maysir nga xam ne kon même ba ci tere sàngara si jubadi gi ci nekk xool ngeen li ci mën a juddoo ci ak uh, xañe jàmm bi ci benn benn ci des kon daanaka at tashawuru tanaasuh laayante biir it daa bokk ci li nga xam ne day indi jàmm loolu nag digalu ah, ah suñu borom la sëñ Tuubaa fedd li ko ay yoon yoon alquran wax na ne wa shaawirhum fil amri wa amruhum shura baynahum yonent bi saa salaam daan digle na addiinu nasiha ba hadis bi jeex sëriñ bi it ñu gis ko mu ko doon pratiquer ci ak dundam mën nañ ne xew-xewi àddina yi ak soxlay àddina yi lu ci mas a dikk bala mu caa jël benn xaraar dana woo mag ñi nga xam ne ñoom la wóolu di disoo ñoom waxtaan ci ak ñoom loolu bari nay misaal ci dunduk sëñ bi tom bi ci mujj mooy almudaaraatu mooy laamisoo ak xejoo ak ki nga wuteel mudaaraat mudaaraat dafa am solo mooy laamisoo ak xejoo ki nga wuuteel ci xalaat wuuteeg moom ci pas-pas loolu dafa bokk ci liy indi jàmm ci am réew rawate na nag boo ko seqeeg nit yi àddina ñu yor ak nguur mudaaraat nag sëriñ bi ci boppam moo ko xamle ci jawhar nafis ba muy teree ak jullit mu ànd akub kàccoor wala mu jaxasoog moom ci lu dul lu mënta ñàkk naan wajtani bu xultata haulaay li annaha min aqbahi l ashiyaay bam ne lakin mudaaratuhum qad nudibat kama bi nassin fi hadisin qad sabat wa hadduha irdaauhum bi gayri ma nuhiya makruhan qulaw muharrama kon sëriñ bi daf doon digle mudaaraat mooy laamisoo séq ak jàmm ñi nga xam ne dangeen ngeen a pas-pas wuutee ay xalaat waaye lan mooy laamisoo lan mooy mudaara mooy gërëm loo leen ci lu loo xam ne du merloo suñ borom waxuñu ngay laamisoo ak nit nituk àddina di def loo xam ne day wuuteeg ndigali suñu borom yi mudaaraat nag sëriñ bi it waxoon na ne kenn rek moo ko mën a taxawee mooy aalimun kamil boroom xam-xam bu mat bu maandu ku dul jeng kooku rek moo mën a laamisoo loolu nag jëfe gi ñu koy jëfee ci suñu dund ñun mooy ñun suñu laamisoo ak ñeneen dañ koo wékk ci suñu kilifa diine ndax it walam taliq illa li aalimin kamil sëriñ bu matub sëriñ da nga gis sa bopp ci walam taliq illa li aalimin kamil qad kaana za adalatin emil waaw kon li ñu sa xaar ci ak kilifa mooy loolu sëriñ bi wax ndax ñoom waxuma la dañoo war a mat waaye dañoo ñoom ñooy mott li matadik mbooloo mi leen topp ci ay taalibe loolu leer na ci ay waxi sëñ bi fu bare bare sëñ bi nag doon na wax ne maa ngi leen di dënk ngeen sàmmonteeg ay teggin ak niti àddina yi di mudaaraanteeg ñoom di laamisoog ñoom mudaaraan nag mooy nga gërëm loo mbindeef ci loo xam ne mooy yàlla nekku ca lu mat xayru bu am solo la nag daana wax ne maa ngi digal képp kuy wone ne maay sa sa sëriñ nga topp yàlla topp yonent bi te nga bàyyi luy naxal xoli mbindeef yi ndax jàmm jàmm gën daal jàmm gën am na kum doon bind ne ko ginnaaw nuyoo bi maa ngi digal képp ku aju ci man mu topp yàlla topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam te sàmmonteeg ay teggin ak kilifay àddina yi nu mu koy defee day moytu lépp loo xam ne day andi ak yàq tey ak ëllëg tey moytu lépp luy andi rëng-rëng ci am réew wala ak yàqu loolu ba tey sëriñ bi moo ko jàngale waaw mudaaraat nag ci diggante nitug diine ak nitug àddina ah laayante biir wala laaye biir da caa war a ànd laa biir da caa war a ànd maanaam di leeral di orienté di fàttali ay warugar ni ko Serigne Touba doon defee ci lay tëjee xam naa ne benn xisa bu gàtt rek ci la ñuy ndax sëñ bi doon ñoom ñoo ko mos daanaka daana laa misoog ñoom buur ba Jolof Samba Lawbe lettre bi ko sëñ Touba bindoon loolu mënees na cee jànge lu bare bare ci diggante nitug diina ak nitug àddina ndax jaxasoo bi jaxasoo bi nag daa war a ànd ak di laayante biir ak di orienté ak di fàttali li war dafa bind sàmbalay bi mu ne ko xamal ne àddina de du la indil lu foqar ciwul ci sa moroom maanaam lépp loola àddina andil ci teraanga da ko foqar ci sa morom andil la ko du andil sa morom it teraanga jum foqar ceewul ci yow léeg-léeg day ànd ak yow jàppale la nga dal ci sa morom léeg lekk mu ànd ak sa morom jàppale ko mu dal ci sa kaw léeg-léeg mu bëgg loola ba lay reeloo léeg-léeg mu jàq loola ba lay jooyloo waaye reetaan looy ak jooyloo bu ci waru ndax ay pexe rek la ay pexe danu la balaa moo yàgg rek mu fas xar kanamam ci sa kanam war la kon na nga dimbale néew ji doole yi te nga bàyyi tool bàyyi jàng na la leer nag lii nga xam ne moo nekk ci sa loxo nga tiim ko ci ay teraanga la tax nga jot mooy dafa am ñu fi nekkoon te nekkatuñ fi loolu la ci jotal la de ñenn ñi ñu sànki leen te ni génnewoon ci seeni loxo noonu lay génne ci sa loxo ëllëg kon nag na nga farlu ci lu lay jariñ àddina ak alaxira balaa sa xéewal yee di jeex bala ngaa génn ci xéewal yi yow na nga génn ci loolu yi loolu laa lay laay biir boo ko nangoo yaa ciy jariñu boo ko nanguwul nag fa inna lillahi wa inna ilayhi rajiun lii la sëñ Tuubaa digal boor ba Samba Samba Laobé boor ba Jolof Samba Laobé loolu nag am njàngale la ci relation diggante kilifa ak ak nituk àddina ndax lii moo ko digal lépp jàmm lay indi ci ak àddina ci ci ci ànd bi kon dañuy tënk kàddu yi foofu di jégalu ndax xam nañ ne xaabaabal nañ tuuti ci waxtu yi te gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa assalaam wa tasaamu fi taxalimi Cheikhul Xadim maanaam jàmm ak xajoo ni ko sëriñ bi jàngale mu indi ci ay tomb yu am solo daanaka yoo xam ne mat na juróom benn tomb wala juróom ci indi na lu yaatu ci sëriñ bi ci boppam ni ko jàmm ñore ak ni mu ko jëmmale ci ay mbindam ak ci ñim doon yar ak ci ay doxalinam ci fànn gu nekk ba leeral ci saa su saa suñ masaa jàpp ne ay day ñëw ni mi taxawee ci arto ak bind mbind moo xam ne sax waxuma la ngir jéem a fayu ci ñam ñam doon jëflanteel waaye sax day da leen di ñaanal yërmande yàlla sunu borom tabaraka wa taxala loolu euh, mooy tomb bu njëkk bi euh, sëriñ bi leeral nañu tamit ci tomb ñaareel bi moom sëriñ Touba. ni mu amee woon ak ubbiku ak ni mu doxe woon jëm ci jàmm ci mbokki jullitam rawatina ñi mu dëkkandool euh, dëkk dëkkal ci wàllu diine muy ñi mu bokkalul tariixa wala ñi jamononteel ci ay kilifay diine indi ci yu bëree bëri ci digganteem ak kilifay diine yi nga xam ne ñoo nekkoon fii indi ci ay exemple ci sëriñ alxaaji malik si waaye indi ci exemple tamit ci alaaj mbàkke bu sote te xam ngeen ne alaaj mbàkke bu so tamit sëriñ bi moo ko yar su fekkee ne ci njëlbeen ci ba aj jafe bi nga xamee ne Serigne El Hadj Malick aji na moo ko mbokkum mbokkam moom mu àndaloon mu ndokkeel ko maanaam wan ko mbégte ak cofeel ci tatagal ko ci ci jaajëfal ko loolu tamit su ko defee euh, ci sëriñ bi la ko la ko jëlee. ni ki doon tamit ci digganteem ak waa àddina kenn ku nekk xam na ne sëriñ bi moom bu ñu dee wax jàmm moo tax si Cheikh Mamadou Mountakha wax na ko ci kore euh, gi jàll rek daan ne mbokki jullit yi ñu ngi leen di woo di leen laa biire ñu dox jëm ci jàmm te ñun euh, euh, jaadu nañu mën a wax loolu ndax sëriñ bi kenn ku nekk xam na ne liñ ko finnaal kenn xamul nu mu toll te jàmm rek la woote kon suñ wootee jàmm ñun placé nañ ci ci ci woote ko loolu moo am ci dundam gépp ci fanweeri at ak ñett yépp yi nga xam ne tumurankeel nañ ko kenn ku nekk xam na ne su doon fayantoo wala doxul jëm ci jàmm ñu dana dana xaw a doy waar lool ci fànn gu nekk soo dee xool gis nañ ci mbind moo xam ne ci nettalib sëriñ Modou Khari Bousso euh, ci mujj géej gi wax nañ ne ci fexe yi ko tubaab yi doon fexeel ci mujj gi bi nga xamee ne dem na ci benn fajar ñu wax ko ne ko am na waxtu woo ne su jotee euh, soxla nañ ànd ak yow nga fekk ñu fee nga xam ne fa la ñuy maaje ci fajar gi te booba euh, nee na sëriñ bi nee na ko liñ ci jublu mooy euh, gis suñ demee ba nga xam ne ñi ngi def seen yooyu ñu raaxaloo tiire ay bal tiire ay bal ci jëmmam ñu gis ne waxtu woowu bi mu jotee tubaab yi am na ay jëm yu raglu yoo xam ne wàcc nañ ba jege ñoom ñu gis ko teg ci seen bët ki nga xam ne mooy commandant bi biñ gisee loolu ay soldaaram gis ko mu dalal leen daa di soufflé ak soufflé goo xam ne day fetal yi day jëm suuf mu daa di waaxu dem ca sëriñ bi waxtaan ak moom ci ne ko daal dafa mel ne am na ab armée boo xam ne làq nga ko te waxtu day jot waxtu nga koy xaare nee na sëriñ ma ne ko armée lu mu doon noonu mu ne ko daal am na waaye nag li may njëkk a def rek te ñaan la ko mooy ñii ma gis dama bëgg nga bindal ñu garanteel nañu doo fayu ci ci ñun te doo fayu ci armée France kon xam naa kooku kon euh, tubaab bu yeewu la bi nga xamee ne sëriñ bi mu ngi mu ngi bind ngir bëgg leen bëgg leen a jàmmal ñoom it ñu bëgg ngir delloosi ko wax nañ ne sëriñ Modou Khari nee na moom teg na bëtam ci këyit wañ doon bindante bokk na ci li li sëriñ bi bind mooy nee na li ñuy wax xasar ba noppi def ab tomb bu ñuul muy xasar ni ñu koy bindee rek ñu jàng alxuraan xam nañ ko rëdd aw rëdd def ab tomb bu ñuul ci diggante bi ci digg bi daan ne leen euh, rëdd wii daal li ko wër. tomb bii mooy lislaam li wër rëdd bi yépp dal ci samay ñooñ lañ bokk féeg laalu leen joxu leen jëm ci tomb bi rek jotawu ma ak yéen dara nga xam ne kon wan na leen ne leen féeg yéen a ngi jàmmal ñooñ lislaam ñi nekk senegal rek man jotawu ma ak ñoom dara te loolu su booba su fekkoon ne keneen la mën naa fexe ba euh, sart yi mi siñante ak moom wala wala xajoo gi mu yamale ko ci ay jabootam wala ci ay ñooñam wala ci ay taalibeem waaye daf ko yaatal ci ci lépp kon loolu ci firnde yu gën a kawe la ci digganteem ak niti àddina yi digganteem ak ay ay noonam surtout leeral nga tamit ci lu bëri ci lu aju ci loolu ci ñi nga joxe exemple ci maam Seex Anta bu ñu bu boo indee ku mel ni sëñ Mbàkke bu su indi maam Seex Anta rek sëñ bi nga ciy jublu ndax niñ mel sëñ bi moo leen ko melal ci bi nga xamee ne xam na ne sëriñ Babacar si doon na dox jàmm ci digganteem ak biñ koy yóbbu segu ni mu sant Serigne Moussa Ka ngir mu def ci ay bayit ngir sant ko ci loolu ak rawatina bi nga xamee ne ñaari kilifa yooyu bàyyikoo nañ fi ni Serigne bi joxe ndigal Serigne Mbacke Bousso ak maam si Anta dem jaale leen def marché bu am solo boo xam ne euh, def na leen. sa ñetteelu wala ñeenteel bi indi nga sëriñ bi nim nim nim daa xajoo maanaam xajoo tamit dafa doon loo xam ne lu am solo la ci kilifa guy jiite ay nit wala kilifa guy jëmmal mooy. nga indi transparence wala nga indi ak yamale sëñ bi da koo bind jox nga ci firnde ci waxlam bi ànd ma tafawatul wara bil xilmi wa diini yakunu fasbira ni mu koy waxee te loolu bëri na ñoo xam ne sax xëy na mën na leen seene ci bu fekkee dañuy bëgg a sellal seen bopp maanaam nit ñi rawan amuñ amuñ fu ñu rawantee fu dul ci xam-xam ak diine daal di daal di gën a hésité ci loolu ci ne yow mi nga xam ne da ngaa jàpp saw askan moo gën askanu diw wala askanu kee xamal ne loolu wérut ragal yàlla rek ak ak mbaax ci la ñuy rawante la bintisabihi li man qad ixtala min jihatit euh, tamsili ummin wa abin fa fihi maj taxit ma taadu bi ci sa tomb mujj tamit nga indi tamit bañ a tooñ te ku la tooñ nga jéggal ko loolu tamit sëñ bi yaakaar naa jëmmal na ci lu bëree bëree bare bëri daanaka loolu moom mooy sëñ bi moom sëñ moom boo xoolee ci taalibeem yu njëkk yi biñ koy doog a topp ni leen doon finnaale ak ni leen doon waare ci ñu bañ a fayu bañ a tooñ loola lu wér la exemple bi nga ci joxee surtout jamono ji daf koy laaj ci ne sëñ bi bu doon fayyi ko li ñuy wax ne euh, bu doon jéem a fayu ci bu fekkoon ne euh, màggal jub na wax dëgg yàlla dana feeñ ci ñi nga xam ne ñoo ko doon finnaal ci seeni intérêt waaye gis nga sëñ moom ñooñu sax far dañuy jariñu ñoom ñi ko doon finnaal dañuy jariñu ci ci moom ci seeni réew rawatina avion yeeg seeni i société yooyu yëpp bu màggal jubee dañ ciy jariñu kon sëñ bi moom jëmmal na jàmm jëmmal na xajoo lool macha allah. Euh, Cheikh Abdoul Ahad surtout ndénkaane bi nga xam ne mujj nga ko indi ci sëriñ bi bi mu dénk nituk àddina kooku loolu tamit képp koo xam ne dangay ngay wut nguur wala nga doon koo xam ne nituk nguur nga tey dégg waxtaan wi. war nga bàyyi xel ci dénkaane boobu bu baax a baax muy dénkaane bu am am solo boo xam ne mënees na cee jariñu bu baax a baax kon daal su sant nañ la bu baax a baax suñ doon tënk waxtaan wi daal euh, ni nga ko indee kawe na njortu te jëmmal na li nga xam ne moo ñu taxoon a jóg muy waxtaan ci jàmm ak xajoo ni ko sëriñ bi jàngalee loolu tamit suñ koy wax dañuy bëgg tamit ñun taalibe yi waaye ñun jullit yi ñu mën cee jariñu te xam ne loolu bi ko sëriñ bi doon def ngir euh, roy ko rek moo tax kon mooy tong bu njëkk bi. ñaareelu tom bi xam naa ne ci la ñu jëm waaye waxtu timis yi xam naa ne lu ci des bëriwul kon su ko defee bokk yi dañuy ànd akuk teewlu akuk déglu rek ñu jublu ci ñaareelu tomb bi incha allah euh, jox kàddu gi sëriñ Mbàkke Abdourahman li ñu Cheikh Abdoul Ahad loo doon waxtaanal léegi moom moo ñuy indil naka la ko Cheikh Abdoul Ahad jëmmale kon sëriñ Mbàkke bismillah aouzu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ko tàmbalee ci kilifa yi fi teew teewal fi sëriñ Sidi di sëriñ Abdul ak sëriñ Xaadim di nuyu commission culturel bi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk liggéey bi te yaatal ko ci anam gi siyaare bu baax sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad ñaan suñu boroom sàmm ko ginnaaw bu ñu siyaaree Mawlana Cheikh Mouhamadunil Muntaqa di nuyu mbokk yëpp di ndokkeel baax docteur sëriñ Abdou ci kàddu yu am solo yu leer yi nga xam ne joxe na ko fi léegi ci tomb bi nga xam ne moom lañ sàkkoon ci moom waxtaan ji mu jàmm ak xejoo ci biir jàngale sëriñ bi mag bi radiyallahu anhu mu indi ci ay théorie yu leer waaye indi ci nag ay tatbiqaat yu leer ne sëriñ bi jàngale na ko ci mbind waaye jàngale na ko ci jëf ak jëflante ak njaboo tamit dumb ko ci teewaayam ak ginnaawam muy loo xam ne ku ko teewlu ko ne war nga cee mën a jële lu bare bare ci ne bu ñu amee jàmm di dund jàmm war nañoo sant bu baax Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim ndax liggéey bi mu ci liggéey daf ko ci njabootam ci lu am solo li mu wax ne bu fekkoonte ne baalewut woote jàmm bisum bi yi ñu am rayu tubaab lay lañ ciy liggéey booba rayu tubaab jàmm yàlla lay doon waaye mu ñëw ne afawtu anil ahdaay ni mu ko waxee tubaab yooyu mu ñëw dugg ci yoon wi dugg ci diine ji nekk ay jaami yàlla loolu mooy udon ila sabili rabbika bil xikmati wa mawcati xasana jàmm nag day lu am solo loo xam ne moom la yàlla lale àdduna ni ko sëñ Abdoulaye waxee diine lislaam jàmm siin la ak laam ak miim mboolem baa dañ ci xare boo dekkee ci lislaam fekk muy lu ci am solo turu lislaam ji waxam ci la jóge li ëpp solo ci lislaam du tàmbalikaay muy nuyoo ci la jóge jaamu yàlla gën a màgg jaamu yàlla yi muy julli bu ñu koy jeexal ci jàmm lañ koy jeexale kon diine jàmm la Mawlaana Cheikh Ahmadul Xadim it jàmm jooju la fi indi sëñ Abdoulaye jox na ci misaal yu bari man maa ngi koy tàmbalee rek ki keroog ba mu jógee Mbàkke ba wala di sànc ab dëkk boppam ñëw ne Daaru Salaam lu bare bari la la wundu kon ñi foogoon ne. ab safaana ko tax a jóg wala day xëccoo wala day nangam mu xamal leen ne moom jàmm kuddam jàmm la raj radiyallahu taala kon woote jàmm la fi woote moom la fi dund waaye bañ fi demee it moom la fi bàyyi ak njaboo tamit ridwanullahi ci loolu lañ doon sof ba tey woote bi ak si mu ak si Cheikh Abdoul Ahad ñuy fàttaliku radiyallahu anhu kenn la woon ci njaboot googu nga xam ne ci sëriñ bi lañ nàmpe jàmm nàmp ci xajoo dund ko dundulu ko liggéey ci liggéey bu rëy boo xam ne buñ bëggoon a waxtaanee fii lim ci def dañuy mën a wax ne mooy dundam gépp moo tax dañuy tànn rek ay ayinaat yuy firndeel ne jàmm ak xajoo moom la jeexal ak dundam te am na ci ay ndam nag yu bare bari ndax jàmm ak xajoo mbokk yi foo bëgg mu law fa dafa am ay cëslaay yoo koy lal yoo xam ne bu benn manqué rek dox bi ci njëkk mooy faw nit ñi nekk benn gi jàmm doro mën a am benn nit ñi nag sëñ Abdou Lahad wax na ko ci njëlbeen li wax ne am na ko waxoon ne ñaari baat moo yor diine tawxiidul kalimati kalimati tawxiid loolu moo jiitu ci jàmm am nit ñi nekk benn sëñ Abdou nag radiyallahu anhu bi mu ñëwee bokk na ci ay liggéey bi jiitu fexe ba yoon wi ñu xam ne bi benn bopp la am saabu kenn ku ne feewoo jëm fenn rek di xëcc jëm sa bopp rek ñàkk déggoo mën na am moo tax moom kenn la doon te ci kanam nit ñi muy Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu man loolu laa déggee ci ba mu wax naan koo xam ne ba mu ñaan ku ne woon ci ginnaawam naan ko abi néew fa mi ngi doon wan nit ñi ne leen na xam liggéey bi genn njiit la am genn kilifa la am kenn lañ fi déglu ñun ñëpp ci ginnaaw lañ nekk benn sëriñ la am ñëpp ay dong lañ. loolu loolu laa dégg ci wax jooju man foofu la tàmbalee ak taalibe yi ñu xam ne kon sëriñ Tuubaa fi nekk moom rek loolu nu nit ñi nag sëriñ Tuubaa képp la nu wan nit ñi ci dundam gépp bi mu jiite yoon wi it sëriñ Tuubaa la teg kanam nit ñi ku ñëw moom la teg ci sa kanam xam ne yéen ko bokk sëriñ Tuubaa mi nga xam ne mooy al Abdul Xadim mooy Abdullahi wa Xadimu Rasuli sëñ Abdoulaye bi ñu ne ko léegi bokk na ci lim doon sëñ Ubaydu Rabbi wa bunu Cheikh kon moom jaamu yàlla lañ ki ñëpp jaamu yàlla waaye nag sëriñ bii nag ab taalibe ma donte mooy woy waajuram waaye taalibe boo xam ne mook taalibe yi ñoo ci bokk yam di déglu ay ndigalam di ko jëfee kon foofu la tàmbalee fexe ba benn la yoon wi ñëpp xam ne sëriñ Tuubaa mooy sëriñ bi ñi gis ñëpp ay jëwriñ lañ ci doon kenn ku ne nag mu jox la sa cër kenn ku mu jox sa cër. bi ci des mu lal ko ci bokkoo fexe bañ xam ne bu ngeen nekkee benn te bokku leen bokkoowu leen it du sotti te xam nañ ci lislaam yonent yàlla Muhammad alayhi salaam bi mu ñëwee Madina ba nguurug lislaam mën a taxaw wala boog lislaam am baat bokkoon na ci lam jëkk daf benn bokkale almuhaajirun al ansaar bokkoo nag mooy da ngeen di bokk li ngeen am bu jafe-jafe am ngeen bokk ko jàmmarloo waaye bu xéewal ñooy ngeen bokk sëñ ab sëñ Abdou Lahad liggéey na ci lu liggéey bu rëy ci fexe ba ñëpp yëg ne ñoo bokk yoonu sëñ Tuubaa bi fu fi borom cër nekk mu jox la sab cër bàyyi la xel waaye fexe ba it ngay participer ci yoon wi di seeti ñu bari di wax ak ñoom di jëflante ñoom di leen joxi ndigal waaye bu ndigal la ma ca la ci war a tegu ci ay sant ki gërëm a ki soññee mu teg ko ci kon moom itam ci wàllu bokkale liggéey na ci liggéey bu rëy boole ca nag li ko doon dikkal mu xam ne Serigne Touba la fi wuutu ñu di ko joxe ngir Serigne Touba mu bokk kook njabootu Serigne Touba man loolu mën naa ci joxe misaal ci kër Sëriñ Abdou Khadir gi ma nekkoon ay camion fekk na fa ba tey di wàcce lu ne lu ne nag lépp lu amal njëriñ nit camion ñu ne wàcce wàcce ko fa ñu ne moo ko moo ko fa yónnee te noonu la ko doon defe ci kër mbooleem ñi mbokkal sëñ Tuubaa waaye it ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ron sëriñ bi di liggéeyal sëriñ bi sëñ Abdoulaye yëg ne ci njaboot gi lañ bokk mu boole leen ci mooy tax bokk ak ñoom li mu am daara ji ma doon jàng alxuraanul karim sëriñ ma Ibrahima Mbàkke ñu bari fii xam nañ ko ñëw naa ba tàyyi fii boutique euh, ci koñ ko seen blaat bi magasin bi fi nekkoon bàyyi àll yu sill yor ko ñëw na fa ba tey jël fi ceeb wala suukar wala dugub boo xam ne ab bon lañ lay jox na dama boo demee jox la nga it sëñ ma te boo dikkee fekk fa ñu bari ñi nga xam ne ñoo doon jàng kaamil wala ci nodd ko ñu doon liggéey yoon wi daal sëñ bi daa jàpp ne moo leen war a taxaw loolu bokk na ci li nga xam ne mën nañ koo seetlu ci bokk gi mu bokkoon ñoom li doon dikk ci yoon wi ngir sëñ Tuubaa mu di ko delloo ci ñoom ak nag yeneen yu dul jeex yoo xam ne xam nañ ay kilifa yu mag yoo xam ne moo leen sampali kër tabax kër gi boobu àgg sampal leen kër ganale ganale gan gi jox la yóbbul dépasse nga war a dem mën nañ ci jox ay misaal yu ñu xam yu bari loolu di di doo xam ne kon bokk la te loolu nag bokk na ci li tax jàmm am nit ñi li wàcc sa kaw te yàlla jaarale ko ci yow mu jëm ci jaam ñi nga fexe mu àgg ci jaam ñi loolu dana tas jàmm waaye dana indi xejoo ba nga xam ne ñëpp dañ la nangu kon loolu yëpp bokk na ci li nga xam ne sëñ Abdoul Ahad liggéey na ci liggéey bu rëy rëy ci nga xam ne ci jamonoom mën nañoo wax ne amul genn kër ci këri sëñ Tuubaa yoo xam ne dara du jógee kese baat dugg fa ci jamono yëpp li mu wax ci sëriñ Ma Ibra Tabaski noonu lan demee daawu ko jël si daawu ko daawu ko na ko yónnee oto mooy gaare ci buntu kër bi ne ana sëñ maam ñu ne ko mu ngi mu wàcc xar mu mag ne ko sëy braat la ko jox fekk na ko ba tàyyi man ba tàyyi fekk na te noonu la doon defe ci ñi mel ne sëriñ Maam Yoro ñu bare bari kon euh, bokkoo na te bokkoo googu bu benn amee ñi bokkoo mooy waral bëggante am loolu tax ñëpp bëgg ko ñëpp doon ko ñaanal su ma saan julli fii juma ajjuma maam yàlla na fi yàgg ji du dakk ba ci kër gi amoon na ko daan taxaw fii keesu miskit yu mag yi la daan yéeg ci kaw di sànni par kees ñool yi di ko jël di téye sama classe gi ñoom waaye dañ bu yàgg nag mu day xotti kees gi ngir ñu mën ñu mën a am waaw loolu ba tey te bu joxee ba noppi dañ koy topp continuer day jël miskin ni ñëw fekk ko ci kër gi day julli poos yi li ci nekk lépp ne jox leen am nag léeg-léeg danaa ko joxe bu bu waa ji sànnee ñaari yoon rek daa tàll loxo jeex na xaw ma nag mu doy waaye loolu daal mën naa ko seere ci nga xam ne dañ daan yàkkamte sëñ bi ne fi bu ajuma mu julli si ndax bu jullisee da nga am miskit da mos dara danga am leneen moo tax ñëpp bëgg ko di ko ñaan da ko ñaanal yàlla kon loolu bokk na ci liggéey bu mu liggéey ci benn le njaboot gi waaye fexe ba it li doon ñëw ci tur Sëriñ Tuubaa di dem ci njabootu sëriñ Tuubaa gi ci lu am solo la mbokk yi loolu waaw mu doon nag koo xam ne ngir jàmm am maandu moo koy lal mbokk yi fépp foo xam ne maandu amu fa ku la ne jàmm jàmm jàmm nga fa wala dana fa sax da lay nax sëñ Abdou Lahat maandu la lalee buñ dikkee toog maandu ci digg mag lépp ci biir yoon wi ñim séqal àdduna ñim séqal diine ji ba ci ñim bokkal réew mi ndax maanu mooy mbir mu ne nga teg ko ci yoon kenn ku ne la ci yàqam joxu ci loolu liggéey na ci liggéey bu rëy rëy boo xam ne euh, ku seetlu ni mu doon jëflante nit ñi da gis loolu ci biir loolu it nag fexe ba murid yi moom nekk benn sàppe mu ne ci seen kanam kenn ku ne am nga kilifa ngay sof ci sa kilifa kilifa googu di sof ci sëriñ bi muy nos bucc ayib boo xam ne soo dara masaana xew kilifa yépp am ñëw seeni kilifa ñooy teew bu joxee ndigal jox leen ndigal ñoom joxaat jot li seen ndigal lépp di jaar ci yoon. mën nañu wax misaal ci mujj mooy bi muy laaj sa su sa su yokk jumaa ji boobu milliard nit ñi ay gént lañ ko jàppe woon diir bu gàtt mu mat ci taxawaayam yu rafet yoo xam ne moo ko waraloon waaye gàddu gàddu gàddu ñu bari ci yoon wi ci xéewal yi ma doon wax nii ak séddoo bari na tey jii ay kilifa yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi doon fi rëy seen moo xëy bis boole ñaari njabootam ganale leen ci da belal am na joo xam ne ngan gu xumb maa ngi fàttaliku bokkoon naa ci ñu ci teewoon bokk ci topp ya ñu bare bari dañ fa ganale biñ noppee kenn ku leen joxal sa gan nga yóbbu loolu def na ko ay yoon fekk ay mag ñoo xam ne dañoo soxla ku leen taxawu mu xëy wut ku yiw xamal ne demal nga liggéeyal fa yàlla liggéeyal fa Sëriñ tubaa su la gërëmee ma gërëm la loolu ñu bari fii mën nañ ci def ay seere kon di taxawu ñëpp ci wàllu gépp loolu mooy xaayit bu mag la bu mat kilifa bu mat la woon ndax nit nag mën naa baax ba di ko soow te du mat nag xaayit ndax loolu leneen la moom moom nag sëriñ Blaaj yàlla defaloon na ko xaayit la boo xam ne foo xal mustawa waaye di soññ njaboot gi it fexe ba ñëpp di dox jëm ci lu baax ci moom mi leen xamee ginnaaw bu Sëriñ Tuubaa jàllee bind gone ko bindu kaamil bu mu jógee say moroom ñëpp ñee la am na fi ñoo xam ne mokkaluñu woon ginnaaw bi lañ fexe mokkali bind kaamil ndax boobu bu la sëriñ bi yewee moom boo génnee say morom ñu bëggoon tukki ci lañ tukkee ñu bëgg a samp kër ci lañ samp kër ñu bëgg a tàmbali def business ci lañ ko tàmbali. loolu it luñ mën a seeral la booba ndax. xam nga ay nit soo leen bëggee defar da leen di xemmeme loolu baax li kenn doon wax ne bu ñu bëggee defar ndaw ñi dañuy fexe ba ñi jubul ñee ñi jub moom foofu la nekkoon gone gu góorgóorlu jàng bu ma ko loxoon bind kaamil boo dikkee boo delloo say morom ñee la ñu mokkalus dañ rëccu am na ñoo xam ne ci lañ góorgóorlu fexe ba fitnaal seeni doom bañ mokkal alxuraan bind kaamil mu ñaan li ko seen la kon loolu it bokk na ci li nga xam ne jëmmal na ko ci tasaare jàmm ndax tasaare xéewal fexe ba xeli nit ñi dal fexe ba ndaw ñi seen xel dal seen ëllëg ñu am yaakaar bokk na ci li tax jàmm mën a am te loolu liggéey na ci liggéey bu rëy rëy bi ci des it nag diggam ak këri diine yi fii kër Sëblaat gi kilifa gune kilifa gune ci réew mi ñëw na fi barndeeb yooyu nga xam ne ndeysaan ñëpp xame nañ bernde yoo xam ne maanaam gan gu fi mos a ñëw bu demee saalit na gan gu fi mos demee saalit na ci tariixa yi ba ci ñi nga xam ne sax bokkuñ diini ñëpp la doon xejoo ci xejo gi mu wax xam ne ñoo bokk dañu am loo xam ne ñoo bokk day nit bokk réew mi buñ bokkee day julli nag la dolli ko ca yëpp loolu si doon ko sàmm kenn ku ne jox laa la la way juróom waxoon ne waraay fii kulli xalqin xaqa man xalaqa loolu doon dund na ko fii loo xam ne mën nañ koo seere waraay fi kulli xalqin xaqa man xalaqa di jongo ba ci xarakaat islam yi nga xam ne sax ñenn lañu dañ leen a woon ñu fi ñëw di xeex mag ñi waa jamaat Ibadu Rahman seen jiit ñëw na fii seere na ñoom ker bañ ko sosee ci seen blaat lañ ñëw lañ ci njëkk def ci alal moo leen ko jox xamal leen fu ñu toll fu ñu toll naa ko naa ko yëg loolu la ubbi ko woon ci këri diine yëpp taraangaam dem fépp bari na tey ay kilifa yoo xam ne mën ngaa wax ne seen kër moo ko yoroon ndax bu fa wàccee oto ba nga dóor ko ci magasin bi ba déwénaat doo jé doo doo wuti doo wuti ab dund ci ñu xam ñoo xam ne ña ko doon yóbbu ñu ngi fi bañ demee lañ leen wax ñi mi ngi fi kon ubbi ko woon ci ñëpp loolu nag moo tax jàmm am ndax. nit ki ki nga xam ne lu baax lu mu am boole la ci jàmm rek nga koy mën a sa diggante moom jàmm rek moo fi mën a am. noonu loolu dafa kër nit yi ngóor gu fi mos a ñëw nag xejoo gi mooy li sëñ Abdoulaye wax léegi ne far farloo mu baaxul waaye far ci nit la bokk ndax ñu ànd ñu ne am na ku tane ñuy xëccoo ñu ne am na ku tane mooy li leeru neutre far mu fenn loolu leerul léegi nag danga far fenn waaye nag du tee nga xajoo ñëpp. ku dikk nga wax ko lu baax laabire ko sëñ Abdou loolu loon def mbooleem nit ñi jëm ci politique ñëpp fi doon ñëw ku dikk mu dalal la defal la wax li mu la wax laabire gi ci war mu def la ko sëñ Abdou wax na ko ne li dox diggante kilifa diine ko nitum nguur mooy laabire noonu mu ko joxee ci leetar boobu nga xam ne sëriñ bee ko doon sàmbaloo bay ginnaaw ba mu sàkkoo ci moom sëñ bi dégg ko loolu it sëñ Abdou dund na ko fi ci luñ xam keroog ba muy Senghor ñëw tàggatoo mu de ko sant ne ko waaye na nga xam ne loo sant lu la nit ñi sant war nga leen sant lu kooku ndax loo fi defal ñoo tax man ko noonu la demee bu ko nit ñi sant naa ko jàmbaa nga liggéey nga waaye moom nag war naa sant nit ñi ndax nit ñee ko fal ñoo ko may doole ju tax mën a liggéey loolu it bokk na ci liñ seetlu foofu xew yi am ci këri diine yi sëñ Abdoulaye di fa yable di fa yab ay ndaw te ay kilifa la yabal yoo xam ne bu ñu demee jëf ju mat lañ fay def nii sëñ Abdoulaye doon waxee ci sëriñ Touba ñu daan yónnee bu dara xewee ni ñu ko xamee bi El Hadj Malick génn àdduna yebal na fa maam Seex Anta ñu ñu taxaw fa tawaay bu am solo am na yeneen xew yoo xam ne amoon na fii ci réew mi kenn du ko tudd nag ñoo xam ne dañoo téye seen seen seen seen seen lu ñoom ndax mbir sëriñ maam Seex bal mu dem lijjanti ko ba delloo leen seen loolee. ñi xam leen wax xam nañ ko du ne lépp la ñuy wax ci kaw loolu it seen liggéey na ci liggéey bu rëy bi ci des it jàmm ngir mu am waa benn leen nit ñi bokk ak ñoom li nga am daa di suuxat ak bëggal seen diggante waaye nag da leen fanqal li tax féewaloo féewaloo di am seen blaat liggéey na ci lool liggéey bu rëy maanaam bi mu ko tàmbalee ci Touba li mu njëkk def mooy fanqal Touba luy waral jàmm du fi am yooyu ñun wax ba mu fiy teree naan saxaar ak jënd ak ndof ak jàllaw tànk ak yooyu nga xam ne ñoo ànd yooyu ak noonu lay créer wax na ko ba alxuraan di tere xam roog maysar day créer ak noonu la wax si daal wax na ko léegi mu ñëw fii tere fi yooyu yëpp te fii ba tey am na jamono lu taabal ñu daan lal def ci ay numéro am na gone yoo xam ne lu ñu mos jënd ci xaalis bu ndee mu jeex fa buy jeex ab xeex lay jeexe ñëpp doole jël xaalis yi gaañ gone yi dem seen yoon moo fi jële loolu xamoon naa benn waay boo xam ne marché Ocass bi la nekkoon daan jaay jën bari jën xam nañ ko lu mës xëy ji jaay bu ngoonee mu jënde ko ndof dem yoonam jënde ko ndof am ñolo la koy jënde Cheikh Mamadou Mourtada Mbacke rek moo naa wax di daa diw daa jënd ak ndof parce que dëgg la ne kii so yàq yàq am xelam ba xamul dara fan yëpp dafa la te moo ko teg boppam kon dafa dem jënd am ñollu pour dofal boppam di ab diir waa ji bi si la teree ñoll mi amul fenn bi mu ko jëndee ca la dem ba am kër yor soxna daa mujj taxaw di sant ne ko ba ku soxla man sant naa bu doon sëy du ma am kër du ma taxaw ndax booba day xëy jaay ba ngoon waaye lu mu jaay bu ngoonee moom sàkkal ko pexe mu xëy taxaw temm ci ne loolu dana fi jóg nga xam ne du rek laabal na dëkk bi waaye tax na jàmm am ndax loolu fu mas a am ñooñu buñ dikkee soppeeku buñ dikkee ci kër yi fitna lañ fi indi di dóor seeni waa kër loolu la def ay bakkan sax faatu na ci mel noonu nit soppiku na dem ci kër fëgg waa kër gi dóor ko bal mu faatu ndax jàpp ne sàcc la te moom dëkk daa xamut daa xamut fu mu toll nag daa dem ba xamut boppam muy fëgg fu mu wër te fëgg sëñ laat musal na waa dëkk bi ci loolu fexe ba yëpp jóge fi ak taxawaay yu rafet rafet waaye jële fi forood xam nañu fii am na jamono oto yi dañuy dàqanteeg duwaañ yi ci biir dëkk bi ñu bari tey fii xam nañ fii di diw diw forodo yoo xam ne jàmbaar lañ woon amoon na fi kuñ daa wax wiiraasu wiiraasu diw jigéen ñi dañ ko daan létt safoor bu jàmbaar la boo xam ne dañuy wax ne ni ñu tourné ci dëkk bi waaw jigéen ñi dañ ko daan dañ ko soxna yu mag yi xam nañ li may wax dégg nga waaye yooyu di jufit na ndax lu yoon la di indi alal ci dëkk te jaarut yoon muy daaneel koom-koom réew mi loolu baaxul day tax jàmm du fi am mu xëy na na jeex ñu bari xamuñu lu doy waaye ca dëgg-dëgg noonu la waroon demee mbir Touba dëkk bu laab la lu fi nekk daa war laab jaar yoon mu xëy taxaw ci temm ba loolu jëlee ko fi ak lam laajoon ci njàmbaar laaj ko ci dëgër ndax booba nag ay intérêt yu ba da ci aju keroog ba toj marché bi booba lu doy waar la waroon am toj rek kon mu liggéey ci liggéey bu rëy rëy bi ñu des am ay taxawaay bu ñu defee tere yooyu ci dëkk bi. am ñuy génn di dem fee di ko fa dab am na waa ju fa nekkoon du sénégalais wa ci cosaan mu lànk ne moom ay kër lor du bàyyi yooyu li lay xamal sëñ laata njàmbaar geeg ak ak gi xam nga tey mënoon naa jeqi fitna ndax bu ne woon dem leen sàkk ko pare waa ji du fanaan xam lu wax bàyyi leen ko fa la muy jaay 24 heures waa ji mënut a jaay benn dërëm mu mujj ñëw jéggulu dellu gannaaw ci la mu jàppoon ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wa jadilhum billati hiya ahsan la jëflante ñoom loolu kuñ duñ xam la fii euh, bu ci wasit beneen xew-xew rajo Sénégal yéen fàttaliku ay jamono bu xataal ña fa nekk di ay murit xatal góor ñu leen koy def sëriñ bi dajal rek di dajal rek ba benn bisu éet la taxaw fii ne bu fekkee dañoo bokk ci réew mi ñu wax ñu ko ñu def ko ne ba ci Mali daane sëñ du nañ def na suñu woy ju bàyyi daa doon def bu amatee ñu takki fas dañ ko dañoo xëy rajo yi daan tàgge di tàgge ak di yëgle ba ña lu man ñaari waxtu daa xëy mënatu tàgge nit minutes nga xam ne kon moom buy jàmmaar jàmmaarloo ci jàmm la koy def li bëgg dana saafarawu te xat du dam te boo bu ko neexoon bu bu fa yeblee moom leneen la ñuy wax kon mat njiit lu mat njiit mooy bu jafe-jafe amee dana fexe ba saafara ko te ja ci kaw jàmm la koy saafara loolu ay misaal yu bari la yoo xam ne mën nañ ko ci joxe. bi ci des it ba Touba léegi ba tàmbali jaxasoo jàmbur di ay ju dugg ñeneen mu xëy indi fi brigade spéciale ay jamono mu indi fii ay ay kilaab ci dëkk bi ay mag di kaas mu ne leen seeni morom lañuy ñuy seet. subhanallah seeni morom la ñuy wër maanaam ku jotiwut ak ñoom seen néew ci ñoom kon jàmm suuxat jàmm ci dëkk bi moo ko taxawal ndax mujj na dëkk dëkk dëkkum xéewal la alal ju bare ngi fi mais amatul sécurité waxtu wala nga dégg ay njaaxum di am waaye sëñ ñëw samp fi brigade ginnaaw bu ci waxtaan ñu mu ci war a waxtaanal di sant ñuy ñuy te ñuy visite am na jamono diir boo xam ne fii ku fi jaar guddi. ñu ngi defal dara buñ la jàppee yóbbu danga fay danga nga tëdd yaakaar naa ñeent fukki fan juróom danga fay xaalis yi xam ne bari na ñoo xam ndeysaan ca loolu lañ doxee ba farat yañ daan def yëpp ci naan saxaar ak naan ñoo la yëpp ñu bokk ndeysaan daal di mujj nekk nit ñu yëwu ñu yëwu te ña xamoon seen njëlbeen jàpp nañ yàqoon nañ kon ci loolu it defar na ci liggéey boo xam ne ay nit la defar ay nit ñu yori kër yor njaboot tey yàlla na ko yàlla fayal bi ci des nag fexe ba nit ñi am confiance xam Serigne tubaab bëgg ko doyloo ko waxtu wu ne bu leen di woo mosu leen woo ci njariñul boppam kaay leen ñu liggéeyal Serigne Touba rek leen wax loolu liggéey na ci liggéey boo xam ne yi taxaw ci dëkk yëpp moo ko taxawal di daloo dalal ñëpp bu musaana ubbi fii gone yeeg mag ñi ñëpp a ñëw di seere kenn koy di wax sa soxla waaye mu boole ko full ak mat goo xam ne nag. mbooleem lëntalkat yeeg njuñ njaajkat yi dañ koy moytu yàlla dafa ko tawfeex ndax nee na léeg-léeg ñu dégg wax dara du dëgg ji nee na day jàpp ne nit ñaa ngi koy dégg li naan kii li muy wax du dëgg mbokk yi kooku mooy sëñ Abdoulaye Mbacke di xaayid rabbaani boo xam ne ñaar fukki at ak nangam ñu def fii ci Touba histoire mëntu ko fàtte waaye nag ay bind lañu war a jël ñu itam ndax ku baax ku jaar ci barab. Hmm, jaarul fenn ngir dem dañuy tekki suñu kanam laqad kaana fi qasasihim ibra li ulil albaab borom xel yi dañuy jàng ci ñii moom wax nañu bokk na ci li ko may ndam loolu teel a xam ne ku yàlla dafa njiit la mu jël sëñ Modou Moustapha ak mat gaag nam doon doxalee tàmbali ko roy fu lu baax nekk mu jël jariñoo moo tax bi yëf yi agsee ci loo xam mu téye ko na ko war a téye doxal ko fu àgg fu mu war a àgg kon li misli hada fal ya'malil aamiluun wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. macha allah eh, sëriñ Mbacke Abdourahmane dafa mel ne eh, da ci am mbir yoo xam ne léeg-léeg day day ak fànnam ndax waxtu wi ñu ko joxoon tënk na indi lu am njariñ loo xam ne sax daanaka ëpp na ci ci gàttal lool. ci yaatal waxtu ba noppi lim indi daanaka boo dee xool ci tënk ci boo ko doon tesaare mu mu fees waxtu sëriñ bi dafa mel ne bu ma dégloo li doon wax tënk na ko ci juróom-ñeenti juróom-ñeenti point ci ni Cheikh Abdoul Ahad jëmmale jàmm ak xajoo te yooyu yëpp ndeke dafa am lu koy lal ba ba ba mu war a am xam nga nit ñi faw danga leen di ëmbal seen sanqal ñu doog laa ëmbal seen kers ñu may ñu dégloo bi ci njëkk te sëriñ bi tàmbalee ko ginnaaw bu mu defee euh, indi ak leeral ci waxtaanu Cheikh Abdoul Ahad wi ci sëriñ bi ni mu ni mu ni mu indee jàmm ak ni mu indee xajoo ak ni mu ci yare ak njabootam dafa ñëw rek sof ci Cheikh Abdoul Ahad ni mu jëmmale loolu njëkk na ci mu ne kilifa diine wala kilifa gu mu mën a doon ngir mu mën a tëral jàmm dëgg-dëgg tamit dafay doon ku xam ne moo responsabilité ñëpp am njariñ di dimbale loolu dafa am solo ci ci kilifa gu nekk ni mu joxe exemple ci ni mu bàyyee woon xel ñi nekkal diine ak ñi nekkal sëriñ bi ca lam bëgg te di leen dimbale di leen jariñ loolu benn la ci yi nga xam ne yaatal na ci ni ki noonu tamit ñaareel bi indi na ci maandu goo xam ne Cheikh Abdou Lahad jëmmal na ko ci digganteem ak nit ñi digganteem ak ni muy jëflante ak nit ñi feexe ba tamit ci biir nit ñi tamit mu saxal ci ak maandu loolu tamit dafa am solo dafa am solo ci kii jiite moom ci jëmmi boppam am na melokaan wu mel woo xam ne dafay fexe ba jëmbal ko ci nit ñi te loolu demoon na ba am ba nga xam ne kuy def dara lu nekk da ko ci sooraale ngir mu yëg ko danga nga sóoraale ngir bu bu ko yëgee nam ca war a taxawee loolu tamit dafa am solo ñetteel bi mooy jël gi mu jël responsabilité ci ak kilifteef nga yëg ne ak kilifteef am na euh, Cheikh Abdoul Ahad nag moom moom dafa doon nit koo xam ne ku naqaree waxtaane la ndax boo koy waxtaanee kilifa gu nekk dana jël wàllam maanaa kilifa gu nekk dana jël wàllam ca waxtaan wa ndax ak matam ndax loo indi rek ci ne def na ko bu dee kilifa gu jiite mbooloo wala ku mën a doon su taxawul taxawaay booba da ciy gis boppam moo tax nag di ko fàttali ku am solo moo tax di ko fàttali am solo moo tax responsabilité bi nga xam ne daf ko daa jël ci kilifteef su su waree loolu tamit dafa mat a royee ci moom lu am solo la. surtout li nga wax ne sawarloo nit ñi ci lu baax ci ñu jëm ci lu baax di sàkk xam nga léegi fi mu ne ñu ngi wut ay kado ñoom sëñ xaat yi ñi di di teg ay ay cadeau ci wàllu jongante alxuraan mën nañoo wax ne loolu Cheikh Abdoul moo ko fi indi ginnaaw bi ko sëriñ bi daa def Cheikh Abdoul Ahad moo ko jëm malaat ci ku góorgóorlu ba indi kaamilub alxuraan mu jox la neexal bu duun mbasin maître mbasin yu bëri yu rafet ak xaalis bu bari ba nga xam ne daanaka boo dee ab liggéeykat sax mën nga caa tàmbalee liggéey ah loolu nag dafa mel ne mi ngi mi ngi tàmbulee tumuranke nag loolu te léegi la mokkal gi gën a bëri léegi la gone yi dàq bind kon kilifa guy guy dégg tamit te ak njaboot nekk ci sagron loola warees na cee roy Cheikh Abdoul Ahad ci encouragé donga yi ci di leen neexal suñ suñ suñ rawee wala suñ amee lu baax rawatina suñ bindee eh, kaamil eh, jox leen juróomeelu tom bi sëriñ bi ñëw na ci digganteem ak kilifay yi diine yi moo xam tarixa yi la moo xam association islamique yi responsabilité yi nga xam ne doon na ko jël bëri na ñoo xam ne su seen su seen bët masaa xonq daawuñu am yaakaar fenn fu dul ñëw fii ci kër gi bëri na ay kilifa yoo xam ne ñëw nañ fi guddi ba tàyyi mu saafaraal leen seeni mbir moo xam dox seen diggante ak ku leen doon tooñ la wala dox seen diggante ak ku leen doon finnaal loolu bëri na li nga wax nii ne jamaatu ibaadu rahmaan euh, euh, ñoom jëmmal nañ loolu loolu sax man tax na gis naa ne seen antenne médicale bi ñu def màggal fii ci kër Cheikh Abdou Lahad lañ koy def waaye tax na ma gën a xam ñoom li gën a tax ñu gën a jàpp Cheikh Abdou Lahad mooy mooy xëy na am na engagement yu mu jëloon ci ñoom ak taxaw yu mu leen taxawoon loolu tamit day wane ne euh, roy gi mu roy sëriñ bi rek ci xam ne moom diine la fi nekkal maanaam nekkalu fi tariixa wala mu nekkal fi ay nit rek. juróom-benneelu point bi nga xam ne wax nga ko mooy fanqal nit ñi ab safaan ci fexe bañ am jàmm te nit ku bala nga am jàmm dangay ngay jub baax yi nga xam ne mooy dox digg nit ki mu mu nekk ci ab safaan muy fexe ba laabal leen laabal société bi ci dindi fi lu bon rawatina waa Touba nga xam ne génération bi nga xam ne mooy bu mujj bi ñoom ñëw nañ fekk ñu faxasal leen lépp loo xam ne moo fi nekkoon ba nga xam ne dëkk bi laab na. taaru na bañ mën a dund ci dund gu normal loolu tamit day lu am am solo loo xam ne jafe woon na léeg-léeg kilifa bëgg a jël ay engagement kàddu yi guddi yi wala waxtaani guddi yi ak yu demee noonu ñu koy wax yoo xam ne dana tax mu jàpp ne war naa arrière si Cheikh Abdou Lahad jikkoo wutoon noonu maanaam moom su gisee loo xam ne lu baax ci société bi la engagement ba mu cay jël dara du ko ci mën a delloo ginnaaw waaye nag daf koy lal ci ak diisoo diisoo goo xam ne daf ci boolee ñëpp loolu tamit dafa am solo ci kilifa tamit jëmmaloon juróom ñaareelu point bi nga xam ne sëriñ bi wax na ko fi mooy wana wane force murid murid yi xam nga sëñ bi boo dee xool ci dëgg-dëgg kenn defulu ko lenn kudul boromam te taalibe yi suñ tubaab yi nag dañoo bokk ci fay gi suñu borom fayee sëriñ kon seen force tamit su fekkee ne bëgg nga loo bëgg ci dëkk bi wala nga bëgg ko ci yoon wi ay gàllankoor di ci am daanaka jërul xuloo jërul xeex na kilifa gi orienté rek maandu ca ca ca kay xeex loola su ko defee faw kooku day dellu ginnaaw ni nga joxe exemple ci kii nekkoon commerçant bi nekkoon fii ci Mbacke joxe ko exemple ci rajo Sénégal loolu tamit jumtuwaay la boo xam ne ba léegi ma def na ko jariñoo kooku it waras na ci rey si Abdou Lahad ci waxtu wu nekk moo xam président daayira la moo xam ku mu mën a doon léeg-léeg soo nekkee ci ab dëkk ñu lay bundu xataal te mbooloom murid yi ñi ngi fi te ñëpp am intérêt ci ñoom nañ roy loolu rek suñ ko defee lañ bëgg saafara day saafarawu te mbir du am juróom ñetteel bi mooy su waree faj dara su waree faj dara responsabilité yi mu cay jël ndax moom lii xew nii daw daaw daaw ko def daaw bàyyee nit ñi ak buur directement maanaam su nit tooñee moo xam ku ko jegale moo xam mbokk ak ku mu mën a doon dalay woo ci wetam saafara ko ba noppi dox sa diggante ak buur ba nga xam ne yow doo ko tollanteeti doo ko xalaatati bu ëllëgee loolu tamit dafa am solo léegi la xew ñu gis daanaka nit ñi ñuy ñëw ci yoon wi di jàmmarloog nit ñi directement waaye ci ay ci ay jamonoom ñu bëri ñemewuñ ko loolu tamit lu ñu war a fàttaliku la te eh, nit ñi noonu yaatu déglu soxlay nit ñi loolu tamit sëñ bi lu ñu war a royee ci moom la ndax nit ñi bari na ñuy soxla te soxla yi wuute na te bëri na ñoo xam ne amuñ fu ñu waxee seen soxla ndax jàpp nañ ne suñ ko waxee xëy na du saafaraw te moom képp koo xam ne mas naa dégg sa soxla faw bu dee relation moo koy saafara walla joxe wala lu mën a doon da ngay xam ne yow mii am na am nga yëg-yëg loolu nag sëñ bi euh, li nga ko tënkee mooy mooy indi jàmm a li tax kilifa gi mën a téye aw askan ba fu mu leen joxañ ñu jëm jikko yii nga jàngat da mën a ñàkk ci ci moom kon ñu ngi lay sant bu baax a baax di la di la di la gërëm dafa mel ne xam naa ne ku mel ne sëriñ di Jaxate danañ ko jox rek mu ñëw lu mu gàtt gàtt mu ñëw euh, joxe ay lu mu jàngate ci waxtaan wi nga xam ne déglu na ko ndax euh, xam nañ ne borom xam-xam la te gëstukat la tey gëstu na ci Cheikh Abdoul Ahad du ñàkk bu mënee jege si nii lu mu gàtt gàtt. bu tënkee ba noppi rek incha allah ñu wéyal kàddu yi nga xam ne moo ci des muy kàddu yu néew yoo xam ne euh, dana danañ ko rot ñu tënk jataay bi kon sëriñ Xaadi lan nga déggee ci waxtaan wi loo ñu mën a tënkal rek euh, ci bi nga dégloo sëriñ Abdoul Ahad Lo déglu sëriñ Mbacké Abdou Rahmane asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel ci jataay bu tedd bii di jiital ñaanal saaxibul fadila sëriñ Tuubaa Cheikh Muhammadul Muntaqa suñu boroom yokk aw fanam akug wéram noonu lañu koy ñaanale sëriñ Sidi mu Cheikh Abdul Ahad mi kilifa ak barab bi tey jëwriñ si Abdou Lahad ak njaboot gépp nag di ko ñaanal it mbokki taalibe yépp ak mbokki jullit yépp di jël nuyoo bi teg ko ci loxo sëriñ Abdul Xuduus mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay bi mu jottalil ñu ko ci njaboot gi yépp di jaajëfal commission bi ci taxawaay yu rëy yi nga xam ne baaxoon nañu di ko taxaw ci wàccaayu màggal gi muy lu am solo nag te yaakaar naa ne ku ca xamutoon lu dul jataay tey bii danga nga yëg ne taxawaay bu am solo la bala ma cee dugg nag danaa jaajëfal ñaari mbokk yi fi jaar muy fadilatu docteur Cheikh Abdoul Ahad Lo ak Serigne Mbacke Abdourahman ci eh, jàngale mu am solo mi nga xam ne joxe nañu ko eh, thème bi macha allahu li ngeen ko tànne jumu leen thème bu am solo la te ñëw ci waxtoom waaye ñi ngeen ko joxit juumu leen ci jàmm ak xajoo loolu dafay lu am solo waaye ci boo ne njàngaleem Cheikhul Khadim mooy njàngaleem lislaam yaakaar naa ku dégg ni ko Cheikh Abdoul Ahad loo traité waxtu ya koy tënk waaye xam naa ne mënoon na cee yaatal lu bare baree baree bari waaye l'essentiel bi mooy wane na ni lislaam diine diiney jàmm la diiney xajoo la euh, daanaka ba muy tàmb rek la ko tënk sëñ Mbàkke ñëw feddali ko badaal islaamu min kalimati tawhidi ila tawhidil kalimati lislaam génnut loolu kon Cheikh Abdou Lahad yaatal na ci loolu bu baax a baax am na sax lu ma ko tooñ léegi mag sëñ Mbàkke bi mu noppee ci waxtaan wi ni mu amee solo naka noonu bi lislaam dee diiney jàmm sëriñ bi jàngalewaat ko fàttali ko ni ko Cheikh Abdou Lahad dundeek ni mu ko dundale li ci sëriñ Mbacke indi moom it doyoon na rek table ronde bi suñ ci amoon benn kalima boobu dana jar jóg ñëw teewe ko noppi delluwaat mat na sëkk kon alhamdulillah dama xamut nag gannaaw ñaar ñooñu ñaareel bi it ci Abdoul Ahad Bousso moom kenn ku ci nekk bi nga noppee daf laa jàngatal ba mat sëkk jàngatiinu ko xarañ décrire wax ji li nga indi woon ci sumuliya mu tàbb wiib ko wax ne wax nga ci nangam ba mu leera a leer kon de la waaj doon jàmbat ci ña jëkk a dem dana ma dal waaye xanaa ñu jéem rek wax laa kulli xaal jëmmi mawdoo bi ci boppam mooy bu am solo te waxtu wi laaj ko sëriñ bi jëmmal ko Cheikh Abdoul Ahad jëmmal ko euh, ci lislaam mi nga xam ne mooy ndey lépp te lépp di dellu ci njàngaleem ba alquran dikkee indil jullit yi laa yanhaakumullahu ani lasina lam yuxaatilukum fi diin rek la daaloon di joxañ ak xajoo akuk yaatal yeneen sallallahu alayhi wa sallam andi ba ar muy ak nooy ci gannaaw boo xamee ne alquran junj na ko law kunta fazzan xalisal xalbi lan fadu min xawlik am na loo xam ne ku munta yaatal mënoo ko nit ñi ci gannaaw ku yaatu rekk lañ xaj ndax nit ñëpp bokkuñu Euh, kon ka ka leen di jiite moom mooy am nu mel ba ku ne mu fekk la ca saw melokaan ba nga defee ne daf caa ànd ak yow mu xëcc la jëm mu xëcc la jëmee nag fañ war a jëm loolu la naa liin waxoon karamallahu wajha daf ne woon nit ñi danga leen di fekk ca seeni mustawa bañ defee ne danga leen a fekk si buñ la nangu leen nag nga xëcc leen jëme leen fañ war a jëm kon loolu lépp day jàngale ak xajoo bu dee jëmmi sëriñ bi ci boppam dafa mel ne moom njàngale mépp dundam gépp loolu lay feeñal euh, sëñ Abdoulaat wala sëñ Mbàkke mbaa ñoom ñaar ñëpp am na ci tudd nañ masaalik wax la mu ca wax ak na mu ca yaatale ba ci wa wajaba taatu man yaxfu rasul ak bayit ya demee noona nga xam ne su fekkoon dañ koy tudde wootekat li xew ci jamono kon kuy woote day mel ne da ngay war a duufal jëmi ci sa bopp moom danaan mbooloo mi xam ngeen ku ñu war a topp ñu ne waaw mu ne ku kuy topp yonent bi sa alayhi ku jub fu ngeen ko gis rek topp leen ca nga xam ne moom kon wooteel na sax ñu jub ñëpp far ñu jub ñëpp wooteel na leen naka noonu moom ci boppam gannaaw bu mu koy bu mu ko dundee muy xajoo ñépp di jéggale sëñ bi la tudd na ko ci boppam bi muy ñaan boroomam ki ki ki réer ci moom na ko suñ boroom gindi waaye moom ci boppam sax li léppam li léppam nekk nekk aw yiw mi ngi ñaan suñ borom musal nit ñi ci waayam euh, ijxal xayaati yi nafa ahli zamani suñ borom maa ngi lay ñaan nga def sama dund mu doon njariñal ñooñ sama jamono wa xayrihim wali yakun bi amani kon moom na nekk njariñul ñépp daa nafin bilaa dara yéen waxe na ko nu ne taxawaay yu am solo loolu mu nekkoon moom la digaloon murit yi ko toppoon kunu muhibbina al xuyura li jamia dee leen bëggal lu baax di bëggal aw yiw ñépp kon bu leen ëmbal kenn bu safaan daan wax ne kuy tooñ du mucc kuy fayu du raw kuy tooñ du mucc kuy fay du raw euh, yaakaar naa daal wàllu xajoo ak jàmm dama naan boo delloo ca naxjul xadaayil xaaj tàmbalee ca tarixatu adabi raxmatu saxiir ba ba ngay àgg ci loolu sëñ Mbàkke tudd léegi waraahi fi kulli xalqin xaqa man xalaqa yaakaar naa diggante boobu ku ca dox danga nga ca fekk lépp luy tax a mën a ànd ak nit lépp sëriñ bi tënk na ko ca tënk na ko ca kon euh, defe naa ne sëriñ bi boo doon ci ci ci waxiin wi xew léegi rek te ku ko doon def da nga naan sëriñ bi mooy jàmm mooy xajoo waaye ni ko doonee nag soo gisee dee si guddal ni ko doonee wax ko day tax ñun ñi koy dégg ñu mën ko caa toppandoo te nag jubluk conférence bi jubluk wax ji mooy jamono soxla na ko ñu fàttaliwaat ko te fàttali nag ngir ñu roy ko la fàttali ngir ñu roy ko la ba tax na kon yaakaar naa ne desul dara rek lu dul ñu yeesalaat ak laxasaay te xam ne bu fekkee dañoo fàtte woon fàttali nañ ñu njàngaleem lislaam njàngaleem sëriñ bi waaye ni ko Cheikh Abdul Ahad jëmmale woon nga xam ne moom it dundam gépp yaatal la euh, xajoo la ba nga xam ne euh, sëñ Mbàkke wax na ko léegi amutoon frontière ci fenn ba ni ko ndaw ñi daan toppe ci waxtoom wax ji bu gannaaw ajjuma waaye ba ci njalbeenu korniis bi su masaan a génn gannaaw tàkkusaan koñ bu mu toll gone fa nekk fëx maanaam nit ñëpp ku doon yewwoo ci dëkk bi dangay yëgoon ne am nga kilifa dafa peegoon jamonoom ku fi doon yewwoo da ngaa yëgoon ne am nga kilifa gu mat kilifa loolu nag li ko mayoon ba ca jiitu mooy fàtte boppam jiital njariñal nit ñi fàtte boppam jiital njariñal nit ñi am na ci boo xam ne rek xëy na dinaa ko tëje li ma koy nett li bari na ndax daf ma marqué waaye jàpp naa ne it dana marqué jamono mooy suñu mbokki libaane yi fi nekk seen mbokk mu leen jiite woon ca waxtu woowa bi mu ko fekkee Touba Belel ak walis malet saagu diplomate yi ak xaalis te def cay pexe ki koy indil fexe na ba ŋàbb ko ba indi ko mu mel ni lu tëju te tëjuwut bi mu ko naan tegg fexe ba xaw koo daaneel kii bi ne tell xaalis bi mel ni bu ma la ko waxati loolu moom ku ko defoon ceetuma sëñ bii sant loo moom daanaka dañuy lox <laughs> sëñ bi ne tekk rek bàyyi waa ji mu defaraat ba ubaat fekk ñoo ko def exprès waa ji ñëw nuyoo di jàmmante jàmmante yu gudd gudd waxul dara mujj sëñ bi bi mu ko jàmmantee baree nag mu laaj ko lu doonoon say tànk mu ne ko xanaa ñëwoon siyaare si rek ak dénkaane njaboot gi waaye jamono yi may nekk soowu daanaa dégg gaa yi di wax ne nit bu agsee ci yow di wax buy doon a tàmbali wax bul déglu la ko tax de waxagu ko buy bëgg a tàggoo la koy wax bi ñëw di dénkaane njaboot geeg kii nag ne xanaa rek de amoon na loo xam ne euh, doon nañ ca sàkku ndimbal muy suñu mbokk yi fi nekk di liggéey te njaboot ya nekk ci réew mi muy Liban léegi dafa mel ne euh, yóbbante fa dafa xaw a jafe te nit it fu mu nekk bëgg di yóbbante ci njaboot loolu daal bëggoon nañ ku ca jàppale ci njaboot gi daal di sartaagalaale xam naa mel na ne ku ca waxoon ak bay jóob booba moo jiite woon duwaañ yi bi mu waxee ba àggal daal di joxe walis bi sëriñ bi ne ko baax na walis moom mën koo téyewaat ne ko loolu yi ngay wax nag colonel Baye Diop ne dana fi ñëw bu dibéeree danañ ca waxtaan mu daal ñaanal ko mu jëlaatu walisam dem fekk na nag ba mu fa daata ñëw yóbbu na fu bari walis ñu téye ko loolu Baye Diop moo ko wax sëñ ba mu ñëwee te bu ko waxtoo nit ñu xam ko walis moom ñëw di dellu moom xam naa kenn du ci sori ndax li kii doon wax booy waxtaan sëñ boo téyut rek am ñoo xuri e, def noonu dimanche Baye Diop ñëw sëriñ bi wax ko yoonu kooku mu ko am ah, Mbàkke ndokk ba nga ko jëlut moo ko tuddal yóbbu na ko barab sàngam yóbbu ko barab sàngam yóbbu ko barab sàngam ne ko ñoom devis bi ñuy génnee te duñ ko jaarale ci banque mu jaar fi mu war a jaar loolu la gouvernement bi dem ba trouvé ko di ko bañ léegi nag moo tax ñu am problème ak douane dégg nga li sëñ Mbàkke doon ndox am réew boo ca nekkee tegu ci aw yoon woo xam ne day jariñ ñëpp dafa ëpp solo waaye su tëyee woon walis woon nag faaw mu def intervention moo tax day muñ njariñal boppam ngir njariñal nit ñi kon yàlla nañu ko yàlla fayal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. barakallahu fika sëriñ eh, Xaadi Jaxate li nga indi am na solo lool ni ma ni ma ko waxee léegi eh, wane nga ne déglu nga waxtaan wi tey it nga ci indi ay exemple ci mel nii yu bëree bëree bëri su ko defee dañuy njëkkante ak waxtu wi ndax xam naa ne. site yi ak rajo yi ñu ngi direct te heure journal bi it mu jot euh, sëñ Abdou Lahad Diop mën naa jege si war a wax ci turu daayira waaye sëñ Abdou Lahad dafa sàkku def ci ay taalixaat yu gàtt rek kon ñëw xam naa ci ay minutes yu gàtt rek sëñ Abdou Lahad Niang oustaz Abdou mën naa mën naa mën naa jege si balaa sëñ Abdou Lahad wax ci turu daayira yi dawaayir yi nga xam ne ñoo nekk ci kër sëñ Abdou Lahad sëñ Abdou Lahad mu sëñ Ceerno mooy seen waaye sëñ Abdou Lahad ñu jox ko mu def ay taalex yu gàtt ci ay minutes yu gàtt rek. bismillahi rahmani rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala nabiyina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala mbokki jullit yi mbokki taalib yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. may sant bu baax euh, kuréel bi nga xam ne ñoo amal jotaay bii tañ bokk ci biir yàlla suñ borom nangul leen seenub liggéey di sant bu baax ñaari mbokk yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi di docteur Abdoul Ahad Lo ak suñu sëriñ suñu kilifa di ñaan suñu borom sàmm ko sàmm ñëpp te ñu suñu Mbàkke Abdu Rahmaan tomb bi duma ma jaar ci liñ waxoon lépp du ma ci du ma ci jaaraat ndax dafa leer ba noppi te boo ci jaaraatee mën ngaa lëndamalaat mën nga am jéppi teg ñi lay déglu ndax liñ jot doy na sëkk xanaa rek dafa am loo xam ne tomb bi daf ko laaj ñu fàttali ko ak mbokk yi ñu yóbbaale ko lenn li dama ko jële ci waxtaanu sëñ Abdul Ahad Lo lenn li ma jële ko ci waxtaanu sëñ Bakk Abdourahman njëkk loolu nag nañu ma jéggal ci li may wax su fekkee ne njuumte am na ci waaye nag sama xalaat la fii nag fu naqat wax nga léegi ne to waxtaane sëñ Abdou Lahad sëñ Xaadir wax na ko ñu bari wax nañ ko fii sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke wax na ko nee na waxtaane sëñ Abdou Lahad ay mbir moo xam ne boo ci jaaree na nga war a jaar nit mën na caa gis boppam waaye nag gis sa bopp it dara nekku ci ndax dana tax nga yokkat positif boo jaaree ci yoon dana tax nga soppi doxe ne loolu tawfiix la te wax nag boo ko waxul du baax sëñ Abdou Lahad maa lay ndokkeel ci li nga wax ne sëriñ bi li ko tubaab yi teg lépp su fekkoon ne dafa ne nañ ko ma dafa dafa digle ne nañ ko maanaam joxuwut ndigal ci ne nañ ko sant bisu 18 safar bu delsee mën naa nekk fitna ci tubaab yi lool da loolu dama ne dañ ci war a bind ab téere dañ ci war a bind ab téere wane ni kon sëñ bi li mu waxoon ci ne nañ ko santale yàlla loola day mel ne day am lu mu doon artu loolu yàlla def na ci tawfiq dafa doon lu dafa am lu mu doon artu yàlla def na ci tawfiq kon ñu ngi lay sant bu baax ci loolu loolu dama koy fàttali jar na ngi bind ci yow ku dul yow it bind ci ndax message bu ñu war a yëkkati la tam bu am solo la ci waxtaan wi mooy wax gi mu wax ne nañ ko santal yàlla ci biir bu bis bu naroon a doon fitna yàlla nañ ko yàlla fayal sëñ Mbàkke euh, ci sa biir waxtaan dama ci dégg nga wax ne bokk na ci li indi jàmm fanqal nit ñi fitna loolu nag ci lay ci lay wax lii may waaj a wax ndax loo loo waxtaane waxtaane jàmm it te fitna te luy indi fitna nekk fa li arab yi wax mooy nekk asmahu jajaatan wala ara taxnan boo xëy samp bu boo bu ngoonee fitna ja sempi ko loolu nag dama koy tudd rek jàll ndax ab conférence la waaye ma tudd jàll juróom benn yii su dajee ci barab wala mu daje ci dëkk dëkk ba du am jàmm léegi nag bu ca benn nekkee muy fitna bu dee ñaar fitna ji gën a yokk bu dee ñett kon boole yépp nag kon fa la fitne samp ab nangamam juróom benn yu ne alxuraan ko tudd tooñkat yi nekk ci adduna bi yépp bari na waaye alxuraan da caa juddu juróom benn tooñkat yoo xam ne daa jaar ci seeni tur kenn ku ci ne nag casquette bañ koy solal war naa tax ñun ñëpp kenn ku ne bàyyi ci xel fu gox bu ñu nekk jàmm du fa am ak lu ñu waxtaan waxtaan alquran tudd na firawna mu taxaw taxawaayu mu yor kasketu njiitu réew wala njiitu kuréel wala njiitu daayira na nam doon doxale waxtaan wi lajut ñu ci dugg waaye la ci gën a fés daal mooy gént la génn gént ginnaaw bu mu doon fitnal banu Israël ndax ci giiru xibti la bokk gént gi da ko wax ne am na sawara wu jóge baytul maqdis ñëw ba ci giiru xibti mu seen fin dëkk mu ko bi mu xëyee dajale kahana yeeg saxaar yi laaj leen lu ngeen firee gént gi ñu ne ko am na kuy juddoo ci banu Israël mooy daane ji sa nguur fenoo ne kon ndegam loolu la ku juddati di góor nañu rendi ku juddati di góor nañu rendi moom la alquran di wax yudabbixuuna abnaakum wa yastaxyuuna nisaakum loolu day xisa bu gudd muy benn kon boo nekkee ci barab ku la nar a daana ji ngi fitnaal yor nga melakaan ci melokaanu melakaanu na loolu nag jarab barab bi daan naqaree waxtaan waaye waxin la rek man daal damay tudd jàll léegi benn ñaareel ba mooy Haamaan alquran tudd na Haamaan moo taxaw taxawaayu ministre wala jaraaf wala jëwrin yàlla nay nattal mooy buy xelal jëwriñ buy xelal lu baaxut loolu day daane day indi fitna ci biir réew kon dama koy tudd jàll ndax mu ñëwute détaillé dégg waaye ay boromi xel laay waxal fii nag fu naqare waxee la waxeen la rek xam dafa naqare waaye damay tudd tudd jàll rek mu taxaw taxawaayu homme d'affaires boo xam ne daa yor alal ju ne gàññ te du jaar yoon du ko jaarale yoon du buggal fu mu war a dugal loola li mu wax ne bokk na ci li may jàmm sa alal nga koy génne di ko financé di def la nga war a def nit ñi amum xëy am liggéey jàmm am waaye alal bu dee demee boor te jaarul yoon te ñu ëpp ci amuñu liggéey amuñu xëy te am njàng nekkul ci ñoom mën na andi insécurité ci am réew damay tudd jàll. alxuraan tudd na saamiri yi taxaw taxawaayu ku yor xitaabu suuf maanaam ku mbooloo di diglu te doo wax jàmm moo xam da ngaa nekk imam bu nekk ci kaw minbar wala nga yor benn site internet wala nga dëkk ci gox boo xam ne la am na am nga saabiya am nga popularité te doo wax nit ñi jàmm loolu day indi fitna ci am réew kon ñëpp di diglu yàlla nay wax jàmm. alquran tudd na jaaloot jaaloot day représenté ku am doole te doole ja jaareel wu ko yomb day fitnal nit ñi di leen tooñ di leen dóor ci lu kaw lu dul dëgg day taxaw taxawaayu jaaloot te loola. Euh, li ma ciy tonk sëñ Abdou mooy jaaloote ci boppam xam nañu doole moom yàllaa ko moom waaye nit mën naa am doole doole juy jaar yoon moom baax na waaye doole joxe jaarul yoon day fitnal nit ñi day indi fitna ci am réew ndax ña ngay ña ngay teg fitna ja mën nañu am bés ñu xëy fayu te loolu lañ fe bi may mujj nag alquran tudd na Abu Lahab Abu Lahab day taxaw taxawaayu ku ñëpp warmal teg ko ca kaw te jubut ki kilifa yàlla na jub boo di gisee mu bokk ci ñaan yi yal na yàlla war sëgal ay kilifa yu jóg ndax dañu wan isa zalla al aalimu zalla bi zillatihi al aalamu fépp la njub baax waaye ci ko ñu roy la gën fii na sib laa daan naqare waxee waaye loolu laa doon junj rek dama doon dama doon macha allah Cheikh Ahad jërëjëf dafa mel ni kon kon li ñuy wax contextualiser nga débat bi ci juróom-benn point yooyu nga xam ne yépp alxuraan a ko wax nga indi ko tollale ko ak jamono jii ñuy dund lu am solo la loolu rek la commission bi jublu woon ci thèmes yi nga xam ne ñu ngi koy tànn it ñu koy méngale ak jamono moo tax tamit euh, suñu gorol bu am solo ci toog déglu gis ne am na lu war a ñëw te nga bokk ci mbooloo mi nga indi loolu loolu tamit ñu ngi la ciy sant bu baax di la gërëm. kon su ko defee Cheikh Abdoul Ahad euh, mu Serigne Thierno yow la ñuy jox nga wax ci turu daayira bi ñu gën a tënk kàddu yi tamit mu gën a gàtt rek ngir euh, li ñu dese ci temps bariwul te rajo yi ñu ngi direct te léegi heure journal yi xam naa ne jot incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu sunu kilifa yi fi teew yëpp jiital sëriñ Abdou Khoudous sëriñ Abdoul sëriñ. xaadim mbàkke nooru ak sëriñ mbàkke abdourahman ak sëriñ abdoulahat loo ak mbooleem kilifa yi teew ci jotaay bi ak soxna yépp ni mu koy waxee rek xam naa wax ci biir mbooloo tàmmunu ko waaye nag dañu ndigal moom bu neexee jëfeel bu naqaree jëfeel kon ndigal la yàlla na nu ndigal li dimbali ba liñ bëgg a wax ñu mën koo wax waaye nag li ci ëpp solo mooy cant goo xamante ni si ñu ngi koy sant ci turu mbooleem ñi fi teew di ay doomi soxna wala ñuy njiitul dayra buñ ci tuddee sëñ Abdou juuf sëñ Abdou Lahad Diop ci kër gi rek man mel na ni tudd nañ yëpp ci turu euh, turandooy Cheikh Abdou Lahad yi nag ñu ngi wax ci kàddug Cheikh Abdou Lahad Mbacké moom Serigne Souhaïbou ci ndigalul sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëñ Moustapha Bassirou moom it day mel ni mooy ci kàddoom la ñuy waxee ak bëgg-bëggam ndax mooy jiitu turandoo yi sëñ Abdou Lahad Mbacke yi ñu nekk ci seen kanam nga xam ni daanaka ab dongalan ci bu ñuy jëfloo di ñu yónni ñuy dox ci ndigalul sëriñ Sidi Mbacke nag moom sëñ Abdou Lahad Mbacke turandoo yi Cheikh yi nag ah, warees na koo xamle bu baax a baax ci biir jotaay bii ñu nekk ndax kenn ku nekk xam na aw tur li muy mundu ak ni mu amee solo ci doomu aadama te tur bii ñu mun tuddee ñun Abdou Lahad yi dafa am solo lool ci sunu jëmm ndax tur woo gis wu nekk la kay tudd di di taamu mooy jikko yi kam koy tudde ndax dan naan kun tuddee nit ku nekk da nga ci jël juróom-ñaari jikko sëriñ Abdoulaye Mbacke benn jikko ci moom dong doy na nu mucc àdduna muccuk àllaaxira moo tax nag ñu sos ci ndig ci ndigalu sëriñ Sidi Mbacke turandooy Cheikh Abdoulaye Mbacke yi ñu ciy dox at yi yépp ci ndigalul sëriñ Abdoulaye moom sëñ Soyibu jël sëñ Abdoulaye moom sëñ Moustapha Bassirou teg ko ci bopp bi waaye nag ñu ànd koog nag mbooleem doomi soxna yi nag di mbusoo bi yi fi teew yépp ak mbàkke mbàkke yu bari damay mënuma jaar ci seeni tuur ñoom ñëpp ak waa bitim réew yëpp waaye bu ne turandooy Cheikh mbakke Lahad Mbàkke itam biñ ko defee dan ni soppe yi Cheikh Abdou Lahad Mbàkke yi war nañ cee bokk sëñ Muxtaar Mbàkke muy njiitul soppe yi ci biir waxtu mu nekk muy jël addiyam alal am di ko def ci biir turandoo yi liñ jublu nag ci lii mooy nos ak nosu xam na ni dëkk bu nekk ay turandoo yi Sëñ Abdou Lahad nga fa waaye dëkk bu nekk jombul am na ku fa jiite ñetti turandoo wala ñeent wala juróom waaye danoo gis ni mbooloo lu mu bari bari bari bu dee junniy nit ca nosuwun téeméeri nit yu nosu moo ko gën te moo gën a noppale ci dox moo gën a noppale tam ci sëriñ bi nuy fekk si moo tax ñu ne woon dañoo bëgg a def fédération boo xam si day lëkkale mbooleem turandooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké yi fu nit nekk ca jiite fa ñett wala nga jiite fa juróom boo ñëwee ànd ak ñun néew ni nag ni kii moo war a jiite turandoo yëpp wala kii moo ko war a jiite mbooloo mi moo saytu ni diw mii moo ko war a waaye li ci gën a wér mooy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom Serigne Souhaïbou moo doonoon njiit li ca cosaan la ndax sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom sëriñ Baara mbakke moo ko njëkk a sos bi mu ko sosee bi mu ñëwee ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké ba jébbale ba noppi xaalis ba yépp ak turu leetar bi da dan ni ko nan ko yët sëriñ Abdou Lahad sëriñ son yi ba moom mooy jiit li kon dafa ni loolu moo wëlbati ko baat tàbbiwaat ci biir ci gàttal daal mooy turandoo yi liñ ci mënoon a wax lépp daanaka sëriñ Abdou Lahad Ka wax na ci lu baree bari ci plateau yi leeral nañ ko sunu dox nag jëm jëmut fenn fu dul ci bëgg fu turandoo Cheikh Abdou Lahad nekk ñu bokk genn buum nosu ci ca jàpp liggéey jëm ci kër Cheikh Abdou ndax danoo jàpp ni bisub Sëñ Abdou Lahad bii turandoo Sëñ Abdou Lahad yi ñoo ko war a defal ndax aw turkat boo ca amee adduna ak àllaaxira am ca àjjana boo mënee tur wa képp sa yaram ñu ne araamal na a defe naa ni buñ la ko tuddee war nga caa def loo man ak loo mënut kon nag ñu ngi ciy woo mbooleem turandoo si Abdou yi jébbale bi itam li ñuy liggéey li ko jiitu sax mooy kaamil yi ñuy jàng alquran ndax saa bu màggal gi jàllee ba ba màggal gi ñëwaat ajjuma ju jot danañ ko wàcceel ab kaamil jàng ay xasaayit dajale li ñu yor ci suñu poos jóge ci suñu xol jébbal ko sëñ bi li nu dajale nag ci kaamil ak alquran ak xasaayit ak ci eh, eh, addiya ajjuma lan ko bëgg a jébbal ci teewaayub sëriñ Abdoulaat Mbàkke moom sëñ Moustapha Bassirou ñu ngi eh, jéggulu ci kàddu yu dëng yi waaye xam nañ ni bu nu waxee xam nañ fi mu bëgg a wax jëmee waaw li ko sëñ bi waxee rek ni boroomi xel fi nekk xaj na dana mottali lépp ci seen xel yu baax ñoo ngi jéggulu nag tey baalu àq bu baax a baax jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Diop mu sëriñ Thierno euh, kàddu yi rafet na mat na kon sëriñ Abdoul Ahad Mokhtar mën na jege si moom mooy wax ci turu commission culturelle bi nga xam ne sëriñ Abdoul Ahad Diakhaté moo ko jiitee ñi ngi nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ci nekk ñëpp moo xam si Abdul Ahad Mamba Sa si Abdul Ahad Ka si Abdul Ahad Musariñ Ndaam si Abdul Ahad Abdul Mutalib si Abdul Ahad Maram ak Abdul Ahad yëpp si Abdul Ahad Njaay ñu ngi lay nuyu di nuyu si Abdul Ahad Ja yéen it seen taxawaay ci liggéey bi ñu ngi leen di ndokkeel bu baax a baax kon si Abdul Ahad mu Sëriñ Muxtaar Fatikan yi mooy jël kàddu ci turu commission culturelle bi ci turu rais njiit li sëñ Abdul Ahad Jaxate kon si Abdul Ahad asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yépp ci turu commission culturelle bi nga xam ne moom la Serigne Sidi Mbacké moom Cheikh Abdoul Ahad dénk liggéey bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Cheikh Abdoul Ahad ci xam-xam ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñuy jublu te di ko amal ñaar fukki fan ñett ci weeru koor yi at mu ne. commission boobu nag sëriñ Abdoul Ahad Jaxate moom sëriñ Cheikh Jaxate Tindodi moo ko jiite ànd ko ak ay doomi soxna yu ràññiku am na ci ñenn ñoo xam ne sëriñ Abdoul Ahad mi jot na leen tudd léegi maa ngi jàkkaarloo ak sëriñ Abdoul Ahad Mbacke Mele moom sëriñ Ali Mbacke moom sëriñ Cheikh Seynabou ci biir commission boobu la bokk xëy na sëriñ bi da ko gisutoon léegi ak yeneen bokk yi nga xam ne bokk nañ ci te lim leen taxuñoo jóg tey waaye dañuy wax ci seen tur di sant bu baax sunu borom tabaraka wa taala ci boole gi ñu boole ci njabootu Cheikhul Khadim di ko santit ci jagleel gëm ñu jagleel ñu tëddee ñu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké muy loo xam ne xëy na kenn mënalu ko boppam waaye ñun ñi ñëw fekk ñu defal nu ko sant nañu ci sunu wayjur yi ñu ko defal lool jant koo xam ne amul ab di ko béggee lool it nag ci tur wi bokk ci tur woo xam doon tur woo xam ne dañ koo béggee lool ni ko sëriñ Abdou Lahad moom sëriñ Thierno waxee léegi mu neex ñu lool sedd suñuy xol lool ba bu ñu doon sàkkal suñu bopp it mën naa am tur woowu la ñuy sàkkal suñu bopp ci loolu nag ñuy tënk kàddu yu gàtt rek kàddu yi kàddu cant rek la cant gi ñu di ci jiital sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Abdou Lahad gannaaw bu ñu ñaanalee kilifaam gu tedd gi di Cheikh Mouhamadul Muntaxa suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér te mottali ay yéeneem dañoo ànd kook moom moom itam ñu ngi koy ñaanal moom mi jëwriñam ñaan googu ñuy ñaanal kilifaam googu te mooy suñu borom bàyyi ko fi may ko wér mottali ay yéeneem dañoo ànd kook moom di santit kilifa yi nga xam ne ñoo ko fi teewal eh, di sëriñ Abdul Xuddus ak sëriñ Xaadimul Nuur ci kàddug sëriñ Mahmoudan te ñu ànd ak sëriñ Dame Silla ak sëriñ Abdul Ahad Dia teewal fi sëriñ Mahmoudan mi nga xam ne moo fi waroon a teewal sëriñ fii di ndax mooy jëwriñu liggéeyu màggal gi ñu di leen jottale suñuy cant ci ndimbal lii ñu sëriñ bi dimbale ngir jàpp ndalal ñu ñu mën a liggéeyal suñu kilifa gu baax googee ci liggéey bii nga xam ni ñu ngi ciy séentu ngërëmam te de ko ci yaakaar lool di ko béggee lool it nag ndax tam taamu gim ñu ci taamu ba di ñu ci liggéeyloo te ñu xam ne ñor na ko lool itam ndax te waxtu wu ne bu ñu toogee ak moom ni ñu ci soññee ak ni ñu ciy feeñale mbégam danañu ci gën a sawar lool lool te loolu waxtu wu ne mu di ko feeñal ci sunu kanam kon nag ñu ngi koy sant bu baax ci loolu. di ko teg ci loxol sëriñ Abdul Xuddus mii waaye nag di tegaale ci sa loxo itam sëriñ Abdul Xuddus ak sëriñ Xaadim Nuur cantuk njabootuk Cheikh Abdul Ahad gépp njaboot Cheikh Abdul Ahad gu góor gépp waaye di nuyu it soxna Maymuna moom Cheikh Abdul Ahad di suñu kilifa di suñu jëwriñ ci liggéey bi di suñu xarit soppun lool di ñu jàppale ci wet gu ci lu nëbb ak lu feeñ waaye di ko teg nag ci loxol rakkam ju tedd ji nga xam ne ba ñu sëriñ bi dénkee liggéey bi ba tey mësuñu cee dox benn jéego te ànd kook noonu muy soxna njaxat mii toog di leen seereel cant gu ñu ko sant ak ngërëm luñ ko gërëm ci ak nangoom ak disponibilité am ak bëggam gu mu bëgg liggéey bi te waxtu wu ne saa bu ko soxna may saa bu ñu demee ci soxna may mu woo ko jox ko ci ndigal ñun noppi nañ ca mi ngi nii waaye mësuñu cee dem ci moom wax ceeg moom jataay bii bu jeexee it ñu ngi waajal yeneen jataay ca bisu màggal ga incha allahu buñ nee suba la màggal gi am na benn exposition bu am solo boo xam ne danañ ko def fii ci kër bi bisu màggal gi it am na beneen waxtaan boo xam ne dañ ciy jàngat waxtaanu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké woo mu defoon ci lu mel ne thème bii nga xam ni moom lañ doon def fi may daanee rek nag mooy sant kilifa yu tedd yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi tey di docteur Serigne Abdoul Ahad mu njëkk def waxtaan wi te defe ko ci defin wu rafet wu kawe njot wu matale de sonn ci gëstu bi lool waaye bokk itam ci biir commission bi nga xam ni moom la sëriñ bi dénk liggéey bi lu jiitu waxtaan yi naka jekk daf cee mas di sonn di ci mas di taxaw di ci mas di jàpp bu fi nekkee ak bu fi nekkul lépp toujours ay xalaatam a ngi ci itteem a ngi ci mu di ci def ay coono yu am so yu yu yu yu rëy sax nag kon moom it ñu koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ndax euh, coono yi mu sonn lu jiitu waxtaan wi rek doyoon na sëkk waaye xam ne yëfama nag moo tax mu man cee joxe lu lu toll noonu. di sant sunu mbokk mi di Serigne Mbakke moom Serigne Abdourahmane moom itam. Euh, du tey la ñu njëkk defal waxtaan defal nañu waxtaan wax dëgg yàlla ba tey te waxtu wuñ ko sàkkoo ci moom rek mu defal ñu ko te wax bu mujj ñëw rek day mel ne tey wiñ wiñ mujj dégg moo dàq ci mas a def waaye moo ciy gën a itam marqué ñi nga ñi nga xam ne dañ koy déglu itte ji mu koy jox ak wax ji muy wax ni muy tukkee ci xolam moo tax bu génn wax moom bu génnee ci xol rek ci xol lay tàbbi gëm gim gëm li muy wax moo tax ku ko dégg gëm ko kon sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax te di la ñaanal tey ñaan liggéey bi ngay liggéeyal sëriñ Touba ci xam-xam yàlla na ko suñ borom nangu te su ko nangoo yàlla na ko ful bu ko fulee yàlla na la ko dencal ba fa ko soxlaa moo fay la ci loo xam ni sa lépp ak sa ñëpp danañ ci xaj ñu ngi ci ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm bu baax ci liggéey bi euh, biir liggéey bii sax même lu dul lii. luñ ci soxla ci luñ ci war luñ ci war a diisoo ak moom wala ñu war ko teelaaj xalaat la ca gën la ca gën la ñuy wax kon sëriñ ñi ngi koy sant bu baax di la gërëm di la yóbbante cant itam ci mbokk yi nga xam ne yéen seq liggéey bi te ñu daan te ñu ñu daan defal liggéey bi waxtu wu ne te waxtu wuñ ko sàkkoo ci ñoom it ñu defal nu ko kon loolu ñu ngi koy teg ci sa loxo yow ak sunu mag jee di sëriñ Xaadi Jaxate ngeen leen ñu ko seen mbokk yi nga xam ne yéen a seq liggéey bi di. dundal xam-xam ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi kon sëriñ Khady yow ñu ngi teg ci sa loxo cantuk rabitatul madaris al quraniya gis nañ seen teewaay bu baax a baax gis nañu teewaay itam euh, euh, euh, ahlul ma ñi nga xam ne ñooy taxawu daara yi di ndeyi daara yi ak wayjuri daara yi te teew fi te seen jëmm ak seen yitte tax ñu teew fi ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax. di leen gërëm bu baax di ko teg sa loxo ngir nga jottalil ñu ko euh, mbooleem mbokk yi di sant itam presse bi presse bi nga xam ne lépp luñ fi def ñoom ñoo koy jàllale di rajo yi sëriñ Abdoulaye Bane ñi ngi koy teg sa loxo nga jottali ñu ko mboolem ko yor rajo te ne fi site internet yi ñu ngi koy teg ci loxo académie mi nan bii ngi ma jàkkaar lool mu leen ñu ko mboolem site internet yi nga xam ne ñoom lañ ko seqal yépp télévision yi itam almouridiyyah nii lañ koy teg ci loxoom mu jottali ñu ko mboolem télévision yépp di beral cant nag télévision Lamp Fall ndax dañoo doon ñoo xam ni at mu jot liggéey bi bala ñoo tàmbali ñoom fekk na tàmbali nañ te ñu wéyal seenub liggéey ba magal gi di jàll bés bu set ñu def dara lu am solo loo xam ni dañ koy waajale màggal gi kon laaj na ku def nag lu kenn defut ñu wax la lu ñu waxul kenn ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm bu baax a baax waaye di sant itam mboolem télévision yi RFM kilifa ga moom it dafa joxe ndigal euh, di TFM TFM laa bëgg a wax kilifa ga dafa joxe ndigal moom it lépp luñ ci def ñu jàllale ko naka noonu 2STV ñoom it taxawaay bu mel noonu la ñu taxaw kilifa ga dafa joxe ndigal ñu jàll ñuy jàllale liggéey bi ca nam gën a rafete kon ñëw amel nañ leen jant gu rëy rëy rëy rëy amel nañ leen gërëm gu rëy ci turu sii di Mbacke moom Cheikh Abdoul Ahad cant yi daal mënuñu ko tudd kenn par kenn waaye kuñ tudd yëgal ne sant nañ la kuñ tudd tit na nga xam ne man miñ joxoon seen kàddu xëy na maa gàttañ lu wala sama xel neexut moo tax egsi wu ma ca waaye commission bi moom. sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp di sant nag kilifa yi nga xam ne itam fan yi yëpp ñu ngi leen yebal ndakaaru ñuy wër ci télévision yi di wër ci rajo yi di jël ci témoignage yi waaye ñoo ñàkk sant nag ñi nga xam ne dem nañ fa def ci ñoom ay témoignage ren kañ kay jiital mooy suñu sëriñ sëriñ Sidi Mbacke moom Cheikh Cheikh Abdoul Khadir mu def témoignage bu am solo naka noonu njabootug sëriñ Mor Khary si ak njabootug sëriñ Malick Bassine si ñu defee woon ko ci kër sëriñ Modou Mbacke si moom sëriñ Moustapha si ñu ngi leen sant bu baax taxawaay ba rafet na lool te mat jërëjëf te it seere yi rafet lool te yaatu lool di sant sëriñ euh, Serigne Mansour si moom Alxaaji Abdul Aziz si da baax def témoignage bu am solo ànd ko ak sëriñ Pape Makhtar Kebe ak ña fa teewoon ñëpp amee leen cant amee leen gërëm ci itte ji ak yaatal gi ak seere yu rafet yi nga xam ne def nañ ko ci suñu kilifa gi di sant. sëriñ Cheikh Mokhtar Lo moom itam ci turu njabootu Cheikh Mokhtar Binta Lo seen diggante ak sëriñ Abdul Ahad te seere ci seere yu rafet yoo xam ni boole kook ak jàpp ndal gu mat sëkk koo xam ne defal nañ ñu ko defe ko itam yéene ju mat sëkk ñoom it ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm naka noonu itam maître Madické Niang di taalibe Serigne Touba boo xam ne li ko sëriñ Serigne Mountakha waxoon fii rek doy na sëkk waaye feeñal na yéene jooju ak Pastef boobu ci témoignage bi nga xam ne defal nañu ko ci Cheikh Abdoul Ahad ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom lañ jot a jot a jël ren ngir euh, waajale ko màggal gi ci turu commission bi Serigne Abdoul Ahad Diakhaté jiite ko ak noonu ñi mu ko àndal ñëpp ñoo ngi leen di seeral ak cant di leen seeral ak ngërëm di sant Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo daan moo daree jataay bi. di sant euh, hmm? rajo yi ah, waaw rajo yi waxoon naa leen waxoon naa presse bi rajo yi ak télévision yi ak site yi ñoom ñëpp waxoon naa leen yóbbante naa kenn ku nekk am na ku ma tegoon ci loxoom ak cantam ak ngërëmam ngir mu jottali ko ña ca des ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di. ñaan ñu teewaat fi ne ngeen déwén kenn bañ a manqué wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad Bousso Muxtar moo doon wax ci turu commission culturelle bi nga xam ne ñoom la sëriñ Sidi Mbacke monsieur Abdoul Ahad dénk liggéey bi euh, muy taxawaay bu am solo boo xam ne euh, ñor na sëriñ bi lool ba tax na ci biir koor gi lay yëkkati moyens yu am solo teg ko ci loxol commission bi ngir ñu ñu def liggéey bi kon. wane xam-xam ak ñu jariñu si Abdou Lahad ñor na ko lool ndax bu ko yitteel doon du taxaw taxawaay bu mel noonu te jàpp naa ne commission culturelle bii bu màggalu si Abdou Lahad exemple la ci commission yi culturelle yi yépp ndax bari na ñuy roy liggéey bi waaye riis gi riis ak euh, am solo gi ak initiative yi ak yi nga xam ne génne na ko ci yoon wi wax dëgg yàlla bëri na ñu ko ci roy te loolu lépp nag taxawaayam la taxawaayu sëriñ Sidi Abdou Lahad la sëriñ Mahmoudan Euh, euh, mooy jël kàddu yi mujj yi su ko defee ñu yëkkati jataay bi waaw sëñ Talla jaañ moom moom Baye Mout Diagne moom tamit ci délégation sëñ Mahmoudan la bokk moom day laqatu waaye kenn ku nekk xam na ne moom ah taalif bu am solo boobu mu mu marché bu am solo boobu mu defoon ci Cheikh Lahat moom moom waroon na sax ubbil sëñ bi ay ay bayit su ko defee balaa ñoo jox kàddu gi sëriñ bi dañuy wax programme culturel bi programme bi ci kanam. incha allah alxamis doomi dongo yi ci takkusaan am na jataay bu ñuy def fii dundal ngoon gi ci alxuraan ak xasida ak ay waxtaan yu diine ñoom ñu ngi koy waajal muy alxamis bii di ñëw kon ñu ngi koy yëgal presse bi ñoom it. ki doon tamit buñ ne euh, ginnaaw suba la màggal gi muy àjjuma ci guddi sëti Cheikh Abdoul yi ñoom it am na waxtaan wu am solo woo xam ne dañ koy def ci guddi gi fii ci kër gi euh, ñu koy amal àjjuma ci guddi moom muy waxtaan wu am solo woo xam ne. Euh, danañ ko fi amal buñ ne suba la màggal gi muy gaaw ci fukki waxtu 10 heures exposition bi nga xam ne commission culturelle bi dana ko gaaral fii ci dund ak liggéeyu Cheikh Abdoul Ahad des na ko ubbi ci gaaw bi buñ ne suba la màggal gi fii ci buntu kër gi incha allah ci bisu màggal gi ci ginnaaw timis ci heure bi cérémonie bi daa am heure boobu la ñuy def jàngat discours lu méngoog thème bii ñu joxe danañ indi waxtaanu Cheikh Abdoul Ahad boo xam ne docteur Khadim Sylla dana ko def Euh, jàngat ci discours Cheikh Abdou Lahad boobu ngir ñu mën cee jariñu moom it alxa euh, euh, bisu màggal gi muy dibéer ci ginnaaw timis lay doon incha allah ci baas bi ci buntu kër bi muy fi exposition bi nekk. bu ñu demee ba ci guddi gi nag des na ko dundal ci ubbee ko waxtaanu diine woo xam ne sëñ Busra Samb moo koy def ni ki noonu bu noppee kuréelu Israahu daaray nii dana jàng ñu boole kook alquran ak xasida ci durus waaye Abdou Lahad Diouf jàngkat. Euh, moom mooy àggale guddi gi li ci des incha allah kon noonu la programme magal gi fas yéene wéyee bu ñu xëyee sëriñ bi yeewi mbooloo mi euh, kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdul Xuddus mu Cheikh Abdul Ahad mu yëkkati kàddu ci turu sëriñ bi suñu noppee ñaanal mbooloo mi ñu yëkkati jataay bi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokki teew yépp di nuyu suñu waajur yëpp bu ñëwee suñu waajur yi mooy sëñ Abdou Lahad yi fi teew yëpp ndax suñuy waajur lañ di nuyu borom xam-xam yi fi teew yëpp ak mbokki taalibe yi yëpp nga xam ne ñoo bokk pas-pas mu jëm ci kër sëñ Abdou Lahad di leen nuyu nag di ci turu sama xalifa bi mu jox ñu ndigal gàntaloon nañu ko tax waaye ndigal moom faaw ñu jëfe ko sëriñ Abdul Xudoos ibnu Cheikh Abdou Lahad moom it mu leen di nuyu ci turu sëriñ Sidi Mbacke ibnu Cheikh Abdou Lahad buñ tuddee sëñ Sidi di jàllale ñaan gi ci sëriñ Mountakha mbakke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd wér. sëñ bi dafay wax ne kàddu yi sax du mën a yàgg gannaaw kàddu yi soññee lay doon ak yëg-yëg ak seere jataay bi ni mu demee ñu xamal leen tuuti itam dëgg la waxtaan nañ ci sëñ Abdou Lahad waxtaan ngeen ci diine waxtaan ci Serigne Touba waxtaan ci melokaanam waxtaan ci léppam mën naa ne ci gàttal waaye ñu koy jeexale tuuti itam muy lu am solo mooy sëñ Abdou Lahad gannaaw bi mu defee lu baax loolu yi ngeen wax ko yéen ñëpp dafa amaat beneen cër boo xam ne bëgg na bëgg naa ñu jeexale ko cër bi mooy digganteem ak Serigne tubaa sëñ Abdou Lahad cër bi mu am ci Serigne tubaa damay faral di wax ne néew na ku ko am. ndax li jafe mooy màggal goo fi gis ñu koy màggal dañ koy def ci ndigalul doomi Serigne Touba ju gisatul ñu koy ñaanal waaye bisu Sëñ Abdou Lahad bi ku ko màggal màggaloo ko ci ngir dàq bu dàq bëgg-bëgg Sëñ Abdou Lahad bëgg-bëgg Serigne Touba ngay dàq ndax dafa jafe ñu ne màggal goo xam ne Serigne Touba moo ko digle defe naa màggal gu mag laa ci xam ak gu Sëñ Abdou Lahad ki ndax keroog ba mu ganee àddina ci njaarim sëñ Abdu sëriñ Tuubaa moo ko màggal ndax màggal weesuwul ñett yii ñu jàng fa xasaayit jàng alxuraan mu bernde nit ñi te daf koo def ca bis ba sëñ Moodu Maamun ñang nettali na ko ba tey dafa wax ne moom sëriñ Tuubaa ba sëñ Abdul Ahad àddina mu ne bis bii damaa bëgg ngeen ngeen ngeen màggalal ma ko te ngeen taralal ma sama gan gi ngeen na ngeen xam ne damaa am ci moom yaakaar te ngeen xam ne gan gi darajee Seydina Xiisa la ñëwee moom Serigne Touba moo wax loolu ci waaye ñoom Cheikh u sëriñ Baara mu Serigne tubaa ñëpp teewe ko Serigne tubaa defaat ca lu yéeme itam ba ñu demee ba koy tudd mu ñëwaat fañ koy tudde waxaat lu nit musul dégg daldi ne gan gii ngeen di waaj a tudd tuddee leen ma ko Abdul Ahad waxuma la ko am ngërëmam waaye ku man turam ba sax du tàbbi sawar daldi ne bis bii moom Serigne Touba moo wax bis bii. bis yu mel nii daal di laajte sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana su ma ko xew xewle ci sama njaboot lan laa ci daan def Cheikh Mouhamadou Lamine Diop Dagana ne ko ne ko Mbàkke de magam ye gën a woon àddina su bis bi mosaan ñëw daan nga ci togg laax dëkk bépp xewlu ci. Sëriñ Tuubaa ne bis ni ko tey xeet naa lool nañ ma ko defal ceeb dëkk bépp xewlu ci kon moom moo ko màggal daane tudd leen ko ngeen tuddeel ma ko Abdul Ahad xasaay di ma wax yi itam moo ko daal di suuf si bi sarfel xasanaat ba ma defoon moom Sëriñ Tuubaa moo wax suuf si bi sarfel xasanaat ba ma defoon xanaa Maryaama mu njëkk ma moo taxoon ma def ko de mag yi ne ko mbakkee day dëgg la Maryaama mu njëkk maa taxoon nga def ko Sëriñ Tuubaa daal di ne Maryaama moom amul lu mu gënee Maryaama mii jur Abdul Ahad daal di ne suuf si bi sarfel xasanaat ba dem leen ngeen ko ci noppam Abdul Ahad muy li muy njëkk dégg ci kaw suuf sëñ Abdul Ahad wax na nit ne bañ ko tiflee ci sama noppam ndeyjoor ba moo ma aar sama dund gépp ba bu ma déggee nit koy ñëw di wax lu du dëgg damay rus ñaari malaayika yi taxaw ci mbagg yi naan ma li muy wax di dëgg day xumb ba damay def ne ñu ngi koy dégg nee na si baa ko def sama nopp yi kon dafa am ab cër ci Serigne Touba bis ba Serigne Touba daf caa bég mbég mu mësul bég Baara la ñu njëkk a gis doomu Serigne Touba ju daanu jël Cheikh Mouhamadou Lamine Baara bu Serigne Touba ci sens la daanu jël daan ne kër gi mel naa fi ay nit kër Serigne Touba moom Serigne Baara moo wax am na ñoo xam ne maa leen mag waaye lii Serigne Touba wax ci sama rakk ji musuma dégg ku mu ko wax daan ne danaa ko jagleel addiya moom Abdoul Ahad ñii di door a ñëw ci àddina yoo xam ne maa koy njëkk a jox mooy maa ko njëkk a tudde doom kan ko tudde Serigne Abdoul Ahad Baara magu ko Serigne Abdoul Ahad bu Serigne Touba magu ko waaw bis booba yooyu yëpp dafaa xewoon Serigne Touba def ko muy ak jagle goo xam ne ñëpp dañ koo nangaloon Serigne Abdou Lahad Serigne Moustapha Saliou nettali na ko Serigne Souhaïbou am na ko mu waxoon ne ko ne ko sa baay de Serigne Abdou Lahad am na cër ndax bu dee man ba ma gënee àddina moom Serigne Souhaïbou mooy wax man ba ma gënee àddina Serigne Touba daf ne bu de sama baay la waaye daan la mu wax ci sama mag ja nag moo gën a rëy ndax ba sëñ Abdou Lahad gënee àdduna sëñ Tuubaa def ne kii sama doom la ñëpp jaaxle sëñ Soxna bu daal di ne nekk bàyyi ci sëriñ Tuubaa nekk doom ci sëriñ Tuubaa moo ko gën a wóor waaw kon loolu daf ko faa waxoon ne damaa amoon ci moom yaakaar yaakaar jooju itam ñu leen ci leeral tuuti di ko jeexale yaakaari sëriñ tubaa àddina taxu koo jóg kon bu ñu gisee sëñ sëriñ Abdou Lahad li mu def ci Tuubaa ak li mu def ci nit ñi ak li mu def ci dëkk bi ñu def ne moo yaakaari sëriñ Tuubaa ja nax nañ suñ bopp yaakaar ja yamul xiyaam moo ko tax a sëñ Abdou Lahad képp ku ko yaakaar yowmal xiyaam da nga da nga fa gis mu mënal la loo xam ne sëriñ bi keneen mënul lu ko sëñ Muntaxa moo ko seere bu yàggut moo wax ne yowmal xiyaam sëñ Abdou Lahad du fa ñaar doomu aadama te loolu yaakaari sëriñ Tuubaa ja la ko teg kon ñu gàttal comme waxtu wi dafa xaw a kii jërë ngeen jëf day baax ñuy waxtaane baax yi sëñ Abdou Lahad yi ba nga xam cër bi mu am ci sëriñ Tuubaa dafa am cër bu mu am ci Serigne Touba maanaam Serigne Touba moo bëgg cër ba moo ko wax dégg ko sëñ Abdou Lahad ñëw firndeel loolu waaw bu ñuy wax wax ci yeneen nañuy wax cër bi mu am ci Serigne Touba waaw jërë ngeen jëf sëñ bi sant na gërëm na ñëpp jëf jërëjëf jërëjëf waaw kay waaw sëñ bi tey ñoo ñaan jërëjëf kon sëñ bi tey yaa ñaan kon. i ñuy xam le ne balaa sëriñ bay ñaan am na journée consultation gratuite buy am fii ci kër gi incha allah. buñ dee suba la màggal muy samedi ci suba incha allah soxna Astu Basel moom moo koy organiser ànd ko docteur yu xereñ képp koo xam ne bëgg nga ñu seet sa yaram euh, seet la ca war jox la ay garab te doo fay dara mën ngaa ñëw fii ci kër si Abdou Lahad muy samedi ci suba. Euh, ci njiitul soxna Astou Bassel kon sëriñ bi ñu dëkk loxo yi nga ñaan su ko defee ñu yëkkati jataay waaw wax leen amin waaw amin amin amin amin